alihi wa sahbihi wa sallama tasliman waahibun naafihi fi lmadaayi saafi bismillahi rahmani rahimi allahuma ya akramu salli ala sayidina muhammadin alfaatihi lima uxliqa walxaatimi lima sabaxa naasiri lxaqi bilxaq walhaadi ila siraatika almustaqimi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim اجعلها لمداها جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى سعادة الدائمة وفرج بها رسول الله sallallahu taala alayhi wa sallama haysu quriat aw kutibat aw nusira ilayha abadan amin ya rabbal alamina wajalha mima tataqana biha hurul hin wal wildanu fi ljannati allati wuhida almutaquna wajalha min ahabi sukri ilayka wa ilayhi alayhi salatu wassalamu bismi ilahi an moloha ilala filamanaye منايا على النهاية بسم الله sur Sud FM bismillahi rahmaani rahiim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli mbokk ni déglu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh Sud FM seen rajo seen jotaay mi tudde alkitab ngeen koy am yoor yoor aju mu jët ci waxtu wi dellu si na dellu ko defal ci ngeen ci ànd ak seen mbokk alxaaji al imam al oustaz Aliou Mbaye ak seen mbokk alxaaji Serigne Mbacké Sylla ak seen mbokk Alioune Sall naa bi ñu sante sunu borom subhaanahu wa taala julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam ñaan jàmm ci réew mi ak réew yu ko wër sama gaa yi nit studio bi tabaarakallaahu toog fas yéene ànd ak yéen 9 heures ba 11 heures 45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 nuyoo tey nuyu imaam alxaaji oustaz Alioune Mbaye borom Kër Massar ak ñàgg toorkal <laughs> jotaay bi tëddee. incha allah oustaz ni ñu ko doon defee lañ ko fas yéene wéyal def ko ñetti xaaj xaaj bu njëkk bi dinañ indi suñu laaj ngeen say tontu bu 10 jotee. ñu ubbi téléphone bàyyi mbokk ñu seen bu dee ku nekk ci biir réew mi day woote ci 88 628 98 98 nekkee bitim réew ñooy woote ci mel na ni mbokk yi kenn mu leen a woote ci sunu téléphone yi bu ñu def émission dëgg la xam naa kay dañ leen di bàyyi xel ne duñ ñu a jot te xëy na ñu jàpp ne dañ leen leen a ne sax danañ ko def muy sone ci suuf waaye nag mën naa indi ak jaxas ci liggéey bi ci jamono ji ñuy wax ci micro yi duñ mën a wuyu suñu téléphone yi bopp yi. jàggeen jëf. tàllal sunu loxo mboolem mi nga xam ne dañuy xëy ci télévision yi mbaa ci rajo yi di jàngale diine yéen ñëpp asalaamaaleykum ba tey delluwaat ci télévision yi ak rajo yi mboolem ñi nga xam ne jamono ji dañoo toog di jàngale lu jëm ci wàllu social muy penc meeg yooyu yéen itam asalaamaaleykum ñi leen di seetaan ak di leen safoo yéen itam tabarakallahu yéen ñëpp it asalaamaaleykum ñu nekk ci marché yi tabarakallahu di tàmbalee ubbi di tàmbalee bale di tàmbalee foofee rek a defar tey déglu yéen itam asalaamaaleykum sëfëru super yi sëfëru tata yi Dakar dem dikk yeeg kalandoo yi yéen ñëpp asalaamualeykum. xale yi nga xam ne ku taxawal sa oto ñu raxasal la ko wala nga romb ñu fompal la pare bi yéen itam asalaamualeykum. lu waay def di ca torox keneen tëdd na ca wala lu waay def di ca tëdd keneen torox na ca. kenn xeeb lam nekk na ñëpp góorgóorlu tabaarakallaahu ndax nu jëm kanam daaru ci bëgg li ko wër asalaamualeykum xam naa ne daaru ci bëgg li ko wër ñoom tam ci ndox mu jafe maak euh, robinet yu tëj ya xam naa ne dañu waa réew muy dégg waaye daaru ci bu asalaamualeykum tuyaaba ba tuutee yokk leen ko bu ndox ma soree xëccal leen ñu ko waaye tabaarakallaahu ndax te tëjtal ndox yi mi ngi xaw a saf waa ko noonu asalaamaaleykum waa ginnaaw raay asalaamaaleykum caaru gaar ak caaru géej tali bu bees ak tali bu mag asalaamaaleykum waaye man di nekk ci dégg rajo bi nee nañ la asalaamaaleykum yéen waa Allemagne as euh, Kutantak yéen waa Espagne ñu ngi leen di wax hola Italia tabarakallahu Pape Mor Diaw Japon Diaw tam yàgg suñ mbokk ma leen di Pape Ndiogu Sall yéen ñëpp ñu boole leen ne leen nii xaaw Canada ak Brésil France bonjour di ngeen xoolee seen montre neuf heures jot na ba teg ñaar fukki simili su ma saan jot dañuy dellusiwaat ci studio bi nuyu ñëpp ñaar ñëpp tabaarakallaahu waaye nag am nañu fi benn auditrice bu bu téye bu marque Saas. Mhm. nee nañu mi ngi tudd Soxna Mariam fay Sall. ndeysaan waaw nee sunu auditrice la daal boo xam ne jamono ji bu ñu tàmbalee daal. ndeysaan <laughs> mi ngi ànd ñu jotaay ba baax nuy jeexal mu door a dem juma. tabarakallah noo ngi koy nuyu kon di ko ziar ci turu alkitab. jërëjëf jërëjëf kon jërëjëf oustaz. ñu fay ko nuyoo nuyu la tam nuyu bu baax a baax. Mhm. yéen yàlla moo motal lépp. allahumma amiin yaakaar naa sëñ Mbacke sëñ waaw waaw def na def na def na def na dugg-dugg yu am solo ci ruqruqaan yi ñu war a dugg yëpp dugg na ci ndeysaan tubaarkàlla nuyoo bi daal mataleeti na mataleeti na <laughs> ndeysaan comme ni ko doon defee ma ne bi yéen bii bonjour bi laa dégg ko Macron nga doon bonjour wala <laughs> ah, waaw xam nga kon comme sunu gan la te hmm. France la jógee hmm. il faut ñu hmm. on le dit bonjour et soyez bienvenus ndeysaan waaw ci géej la ci rànga. mbay oustaz dootul fay lemp. doy na waar de mu koy xam naa tubarkàll la. ni mu ko loogu loogale noonu. waaw ñaari at ak nii fa yumb ko. est-ce <laughs> que <laughs> tubarkàll la. lay ndeysaan est-ce eh, kon nag yaakaar naa ne li mbàkk yi nga wax ci. waaw ñi bi ci jotaay bi ñëpp. wallaay a nuyu jant bi dana sotti duñ matal. te du àgg. lu wér ngeen nag ñu ngi toog nii day sunu. téléphone àgg na xaat ci cinquante et message su noo ngi ànd ak yéen bi. ndeysaan waaw cinquante et un message su bi. ndeysaan jotaay bi. te mu ngoog kon nag jërëjëf. Mm-hmm. loolu yëpp ay ay soppe la. sopp nañ leen. ko sopp sopp na la. wallaay ndeysaan est-ce que. ndeysaan am na solo xam naa kon ñu jaajëfal leen bu baax rek ñu yooyu matale na. waaw ay ci bismillah. <laughs> taal. sëñ bu taal nuyoo bi macha allah. bu pare teg ci riir. ndeysaan <laughs> waaw. xëy na kon li ma ne ko tubaab bi ci làkk quoi. mu ko boobu ñu def macha allah jërëjëf sëñ bu taal tamit bu baax la de man jotal ko lëre te moom dañu ngi koy nuyu baax a baax. ndeysaan barkal ndeysaan. Eh, kon nañu mën nañoo tàmbali. ayca. dugg ci las <laughs> mi boo ci sóobu rek baax la <laughs> ndeysaan. parce que xam nga xam ajjuma yi yéen ñu ngi ci mbirum économie. Euh, tey nag dama bëggoon ñu sa taxlu ci wàllu actualité tuuti. Mhm. nga jàngatal nu tolluwaayu dëkk bi. Mhm. ak réew meeg euh, li ci aju. Mhm. ndax ñetti xew-xew yi nga xam ne bu ci nekk daara ji dinañ ci soxla sa xalaat. mbokk yi lay dégg yëpp di leen safoo ni faral di gërëm di orienté ci yu mel ni xew-xew dëkk bi. dafay mel ne xutba jumaa ndax léeg-léeg dara xew imaam yëpp waroon ko mën a xutba ci jumaa yi waaye dégg-dégg bi nga ciy am ak taxaw bi nga ciy amit it day nekk ndimbal ti ñu bare bare bare son am naa sama benn mbokkum daara buy jiite fële ca boori zone industrielle mhm. nee na man bala may bind sama xutba ma ñaare bala ma koy confirmer il faut ma déglu leen ba pare surtout nag ci wàllu actualité ndeysaan donc koy nuyu imaam ma ndogal Diop ndeysaan sa soppe la ku baax la. lool lool te dinaa ko gis nag. waaw mu ngoog tey xam nga xamante ni waaw kay tubaarkàlla soppe lu pur kay. ndeysaan xam na ko. kay baax la ndeysaan. Mm. Euh, sëñ Mbacké. waaw Maali. ko doore ci gan gi. gan gi gan gan. Euh, Emmanuel euh, Emmanuel Macron. Mm, d'accord. <laughs> di ganu ko réew mi. Mm. jógee France war fee ñëw. ñëw na fi. waaw ñëw na. biig mu fekk na fi coow. teewul opposition ñii nii waru fee ñëw ñii bu na fee ñëw waaye ñun nii lañ koy teeroo mhm. wan président bi fi nekk ni ko kontaanuñ ci yow mere nanu la mhm. su ma laaj foofu ndis euh, noonu la war a demee suñu naqar ak suñu suñu wan ko ne mere nañ la ci makkono lañ koy wan walla ban jàng nga ci am jërëjëf xanaa fàttali rek incha allah danañ dégg léegi ci bande annonce yi incha allah. Mm-hmm. ci sunu xijaab day bi nu génne démb. mooy journée sans bopp neen. waaw ñëpp muuru incha allah. mooy mooy journée bu premier. waaw te bu subaa ci samedi ji nag ñun ñëpp ñu daje daar ci bu. célébrer ko incha allah. ah boobu sax boobu laa war moom laa war a njëkkee nag. waaw du kay tubaarkàlla xel day fattu ko. moo tax ma moo tax ma dugalal la ko foofu rek. <laughs> tubaarkàlla jërëjëf liggéey bi la bokk. waaw moom ak moom waaw boobu daara jaa ngi séentu gan ñëpp. Mhm. te itam daana ci am yuñ ca daan kii daan ko ca kii. moom ak tubaarkàlla. Euh, Saas. Mhm. da ngaa tudd ñaari ñaari camp. mooy mhm. alxisbu ak alxisbul ne ci fauteuil bi ak ñi bëgg na ci fauteuil bi. ñu leen tuddee opposant ñu la ñu tudd leen pouvoir ñoom ñaar ñi su fekkee kàddu gu ñaaw du jóg kurpañ du jóg ku ne ni ngay def noonu la bu fekkee kurpañ du jóg bu lépp da yem ci wax waaw na yëpp yem tax seen cheikh nee na bu ngeen dee wax kurpañ du jóg bu ngeen dul wax léegi tey dënn yi fees kurpañ jóg <laughs> rahmatullahi alayhi wa radi anhu kon ñiy am gan sañ nañoo am gan. Mhm. juróomi chef de l'État ci Afrique gi war nañoo ñëw fii fekk si gan gi ndax soxla ko seen dëkk mun leen faa fekk ñu ñëw bëgg ko fekk fii. est-ce mhm. mhm. nañ juróom ñoo xam ne dañu jël seen dossier seen réew. ñëw dajeeg moom fii. fekk si ah, waaw. ndax munta ñëw seenum réew. te buñ sañoon mu ñëw fa ñun nag mu ñëw sunum réew. donc loolu lu am solo la. ñi nga xam ne ñoo nekk ñoo opposé it ñoom it toujours dañuy bëgg bu fekkee ne dangaa raax néeg bi mu am lu fet ñu ñëw ne la fee daa fet ñoom tam loolu mooy seen liggéey duñ topp état bi naan leen néeg bi raax bi ratax na peinture bi rafet na déedéet duñ leen wax loolu te fekk am na fet même bu amul daal en tout cas daañu leen wax ne fee daal moom fet na moom même bu fetul wala raax bi fii dafa xaw a gëllëgoo wax nga dëgg. parce que bu ñu nee bu ñu nee raax bi marché na fépp marché na fekk si nañ leen. waaw te bu boobaa opposition lu am. <laughs> fekk si nañ leen. donc penc mi ñoo war a dégg loolu lu ko may noonu ci suñu bopp nooy coow ak xëccoo ko def yëf ak a meronte. <laughs> affaire bi du noonu. <laughs> sas Aline léeg-léeg dama la koy fàttali ak sëñ Mbàkke. ci julli gi yonent bi julli woon te wàññi woon julli ga te jama joon ca mm-hmm. toujours nu fàttaliku mm-hmm. gis nga asl boobu mm-hmm. parce que addis yonent bi seen oustaz Alioune ñëwul rek pour benn affaire dafa ñëw pour defar penc bi addis boo dégg rek am na lu xew ni alxuraan di àndeek nun addis ñëw saraa ko nun la addis di àndeek ñun moo tax addis boobu man na ma ci dellu lu bare bare ci pouvoir beeg opposition bi ma la koy misaal ci alayhi salaatu salaam dafa julli ñaar rakk rek sëlmal toog. waaw sëlmal toog. Mm-hmm. ana saaba ya. ña nga fa mm-hmm. jàkka jaa ngi fee del. Mm-hmm. ñëpp na cel. ñëpp na cel. opposition bi nun la ñuy xaw ma ñi rek pouvoir nun la ñu mel. média d'état yi nun lay mel ñëpp na cel. léegi nag média privé. <laughs> yàlla na yàlla sàmm leen. amiin kenn ca ñoom daal di ne ko yónent bi waaw. sallallahu alayhi wa sallam yow da ngaa juumam. dangaa wàññi julli ji mu ne ko kilaaxuma lam yaxdus benn benn amu ci ñaari nga wax benn amu ci wàññiwuma julli gi jëma jëma loolu la ko wax de mu daal koy laajal ne ko ah yow ñaar rakka nga julli kon ñaar rakka war naa des yonent bi da ko waay loolu amut mu ne ko am na yonent bi nag daal ko fay bàyyi moom en tant que média privé daal di jàkkaarloo ak nag média d'état Mhm. Mhm. ne leen waaw zul ya day ni mii li mu wax nuun la ñoo doon ne ko waaw nuun la ñaar rakk de nga julli mhm. moom it oustaz Ali néew leen lu tax waxu leen ma ko yuuxuwu leen it dafa jóg defaraat julli ga daal ne li ma dal nii comme dalati defal nii ma def kon bu bu am ak gan di ñëw ci peñ ci dëkk bi ñi nekk au pouvoir dañ naan ko soyez bienvenu soo ñëwee ay dossier ngi fi boo ci mën a jàpp nga jàpp ci penc maa ngi fi loo ci mën a def def ko ci loo ci mën a wax ko ci l'essentiel daal ne ñëw bi amal njëriñ penc mi lu jiitu 1960 yéen nu colonisé woon 60 ngeen dox indépendance ba wax léegi ñu ngi jéem a dox ak ni ñuy doxee seen réew mooma waa ëpp na doolu suñu réew mi nangam nangam peut-être peut Mm-hmm. ala kulli xaal nu waxe ko noonu mm-hmm. te bañ leen a joxoñ juróomi baaraam maanaam njaay doosu ma woon ca Kawlax waaw ndeysaan nee na mm-hmm. benn baaraam ca pénc ma ab joxoñ la mu ne waaye ne sàtt juróomi baaraam yalwaan la bu nu kenn rey oh. ndeysaan dañu coom ñag coom nga dégg kon nag ñu bañ a taalal juróomi baaraam. waaw taalal leen benn baaraam. ndeysaan ndeysaan du dëgg. dëgg la ñu opposé it. Mhm. ñoom tam ñu ne waru fi ñëw. Mhm. ndax suñu économie bu fi ñëwee. Mhm. mën na fee samp yooyu da koy xajamal ci suñu xale yi. mën na koo xajamal ci koom-koom bi. joxoñ ay yëf. suñu CFA bi nangam. suñu lii nangam suñu pétrole bi la bëgg a jël si. taf taf ñoom tam. léegi nag état bi. ñooñu buy wax na leen dégloo ni yonent bi doon dégloo waa ji waaw li na ci wax ji ci alxaq mu laaj ko ñii ñoom tam bu ñu ko waxee ñu ay lii wa nàngam ñu dem barkalla wa shukran jërëjëf jërëjëf oustaz loolu am na solo tam sëñ Mbacke yaakaar naa ni euh, point bu am solo la te leen bari na ay gis-gis yoo xamante ne mu ngi ciy wàcc am na ci ñoo xamante ne nii dañu ni euh, daanaka président Macky Sall daanaka daf ñoo delloo ci loxoy France daanaka société yu bëree bëri bëri maanaam liggéey yu bëri waa France lañ koy jox waa France ñooy def lii waa France ñooy def nangam nangam am na ñu ci ñu ciy kii mais ni comme ni nga ko jàngate nii wax dëgg yàlla njàngat bu am solo la te dama xalaat ni sama laaj bala Mbàkke jël mooy est-ce que média privé yi nga xamante ne tey waroon nañu mën a nekk arbitre nga xam nañ li xew mm-hmm. est-ce que ñoom itam lan moo doon seen nekk seen taxawaay suñu taxawaay dafa am suñu benn menn sunu doyen Sidi Lamine. Mhm. yal na ko yàlla sa yokk wér. Mhm. <laughs> nee na. Mhm. train bi agsi na ci heure. du information. luy information. mooy train bi daa tardé. kon kon négatif rek mooy information. déedéet du doon ah. nee na train bi agsi na hmm. la war a def daf koo def. ki def li mu war a def gën a gën def li mu war hmm. loolu du information. non man moom partagé ma ko ak moom. waaw <laughs> moom. dégg nga boobu moom. bu fekkee nag defut li mu war a def nag. Mm-hmm. Oustaz Alioune. Mm-hmm. xam nga tax doog partagé ak moom. Mm-hmm. da ngaa jóge da ngaa jóge ci média privé tey fi ni yaa ngi dégloo ci média d'état. waaw kon doo ko partagé ak moom. ok kon benn noppi dafa dégloo nii. voilà da nga ñëw ci <laughs> da ñëw ci fi ñu nekkoon muy média privé. dafa wax ne média privé. nekk fanaan naan train bi ñëw na ci heure du du information. mu mel ne danaa rek li war a am ba noppi am. jekkeeti di ca perte temps di yëgle ne am na mën naa am loolu. Euh, jeex na su ko defee waaye li wërta am ba noppi am na yëgal nit ñi ne li wërta am kat mi ngi am. xëy na loolu mooy information la ci ñoom. information la ci ñoom ah ñi koy jàmbaar lañ war a def def nañu. Ah, ci ni mu ni néeg bi maase na ah. <laughs> vraiment couleur bi mu ko jox nag waaw mu dem loolu la. Mhm. <laughs> ah ba na. Hmm. sëñ Mbacke. ok am na solo Oustaz jërëjëf Oustaz Alioune jërëjëf Oustaz Alioune Mbaye ni nga ñu euh, ñëwale ci dikkuk euh, président France bi am na solo waaye xam naa bu ñuy waxtaanee France fii ci réew mi. ci hmm. wàllu diine itam dana ci am wàllu rëy. ma bëgg ñu ñëwaat tuuti ci diggante relation France ak Sénégal. Hmm. nga xam ne tey jii mën na cee doon ab fàttaliku ci yenn yu baree baree baree baree bëri ndax boo xoolee réew mi ni mu tëddee woon Oustaz nga xam ne ñun ñoo fi nekkaloon suñu bopp léeg-léeg bu dugalee diine ji mm-hmm. ak ni ceddo yi amee woon doole euh, ay royaume yu baree bari ni ci réew mi tasaaroo mm-hmm. français yi ñoo ñëw tas loolu mm-hmm. samp fi seen nguurug bopp xam naa ba doyal ci ñun wala ñun ñu bëgg a euh, ber euh, beru nañ ñëpp ñu ne ñu ber nañ leen léegi boo ñu dellu si waatal ci loolu ak ni niñ mujjee daanaka yor seen culture di jàngale seenu làkk suñu xaalis ñu askanale leen ko daanaka doon ay français yu ñuul loolu noo ko gisee waaw ñaare bu ñu sante benn thème bu ñu tuddee alxasul fikri guerre culture. loolu boo boo ci delloo. tubaab bi bi muy ñëw ci sunu réew mi sëñ Mbàkke. dafa indi bagage ak marchandise. mooy dafa indi dooleem. indi pexeem. indi diineem. nga xam ne loolu muy diine woo bu sañoon nun ñëpp nu la ñuy diine woo. léegi nag bi mu indee yooyu day indi ay jumtukaay yooyu mën na fexe ba loolu am. moo tax bi mu fi fekkee mag ñi damay wax ne bu leen fi fekkutoon duñ àgg mukk quatre pour cent yi ñuy wax naan moom lañu <laughs> waaw te Afrique yi ñun ci man ci wàllu googu bëriwul lool nag liggéey yu mag ñi la seen diggante tubaab bi ndax ñoom dañ ko teel a comprendre <laughs> wallaahi lang ak moom bari maam Cheikh Al Hadj Malick day wax ne tubaab bi nanu ëpp doole <laughs> nanu ëpp alal waaye bu nu ëpp xel nag bu nu coloniser ci am-am. coloniser suñ ci doole. suñ suñu xel. fan jëm du baax. Hmm. dafa mel ni yooyu nag bu ñuy xool oustaz soreetuñ ko fi mu ne. waaw léegi. Hmm. tubaab bi moom loolu la xam moom it. loolu moom Cheikh El Hadj wax moom la tubaab bi xam. Hmm. mu fexe ba bu nu amee télé. noog moom koy séddoo mbaa mu ëppale nu ci. Ah, saa boo ubbee. information bi gën a am solo ci yëf yi. Hmm. tubaab lay doon. Hmm. waaw édition spéciale. bi gën a am solo ci débat yi. Hmm. tubaab lay doon. film bi gën a am solo ci film yi tubaab lay doon. te li ci gën a garaaw oustaz mooy dañuy dañ dañ dañ koy contre. boo déggee ñu ne njàng mi gën a koy ci njàng mi. ñu ne tubaab lay doon. tubaab lay doon. école bi gën a xaw ci école yi. ñu ne tubaab lay doon. enseignement supérieur <laughs> nangam supérieur euh, nga xam ne kon fi mu ne tey bu bu président France ñëwee ñu fàttali ko ay maamam euh, xëy na ni ñu taxawee woon Sénégal ak yi nga xam ne moom lañ ñu defal bañ agsi fii suñ diggante ñoom dañ koo war a wax waaw góor tàcc ko wala dañ koo war ne ko yow daal nag mu wax dëgg yàlla euh, xam giñ la xam moom du yokkute ci ñun ñaar yooyu ban ngeen gis ne moom lañ ci war a wax danañ ci wax ci diggante bi mm-hmm. parce que gan ñaare boo na ko nangam nangam <laughs> mën na ko dil problème waaye dañ ko war a yóbbu ba ba caaro hmm. yu hmm. tubaab bi daje woon sunu maam ya demoon ca guerre ba. wallaay hmm. ndeysaan yóbbaale ñaane mag ñi. yóbbaale seeni i seeni seen i kurus. dumal leen Allemagne. Saas Aline. dumal leen Allemagne. mii ca la bokk. Hmm? bu ñu leen duwalee Allemagne ñibbisi tubaab bi war leen a fay dàmp leen ne mboolem ko ci bokkoon na nga ñëw Oustaz Mbacke mhm. muy feet gu rëy kenn ku ne sol la nga rafetle waaw mhm. ñëw ñëw ñëw ci say bokk bokk ya sol seeni tenue militaire yi ñu leen joxoon ak Chirac di xaar ñu rappel ndeysaan tubaab bi sox ay bal ci seen dënn yi tubaab bi sox ay bal ci seen dënn yi kon def na fi lii mooy caaro yi gi ngay dégg caaro yu 44 44 mu fay leen xaalis waaye mu tiire leen ay bal la sox ci seen dënn ñu jaaxaan laa ilaha hmm. defu film bëgg ko tudde caaro fi nekkoon na ko du fi dawee hmm. ndax day bañ ñu day tax ñu bañ tubaab bi hmm. te bañ leen du ñu jig hmm. Hmm. bëggu bëgguñu ñu bañ leen bëgguñu ñu bañ leen Oustaz jëf juree jooju Oustaz Alioune bay fan lañ jaar ba mel ne ñu leen ko baal ba tax ñu ak tubaab bee neex ñu leen ko baal mooy nëbb gi ñu ko nëbb xam nga bu fekkoon film boobu dafa ndaw dawati. daw ci télévision yi. ñun danañ xam ne noonu sunu maam yi. amuñ ci kenn ku ma sa dellu ginnaaw. Hmm. balub dëng rek nga jaaxaan. Hmm. suq mi ci bàlla gobar kii ji mi. wallaay ndeysaan wallaay wallaay wallaay wallaay. léegi nag su fekkee ñun xamuñu loolu. Hmm. ah yow waxoon naa la ba ñuy ba ñu màggali <laughs> màggal ga. nga ne ma waaw yow. ba ñu départ Dakar bi léegi waxoo. ma ne ma ne la je suis un peu <laughs> oustaz damaa gis bu ñu àndaan da ngay wax ni kii ma ne la waaw parce que damay màggali nga ne ma ah kuy màggali ma ne ko la <laughs> ah, ma ne ma ne kuy màggal da laaj ko <laughs> ndeysaan ma ne ko li nuy màggali nii waaw tubaab bi bëggoon a jël suñu maam waaw rey ko nañ ma baal ci baat dëgg la de dëgg la yàq programme am yëpp yàq programme am bépp loolu la bëggoon ndeysaan ndeysaan ah, loolu loolu laay fàttaliku ci quoi. Ah, Oustaz Bakk nu ma ko war waaw. ah kay ah kay ku ko yëg ku ne am na loo war a yëg loolu man war nga cee mën a mer. Hmm. loolu laay wax nag kon ci caaru 44 yeeg ñoom suñu suñu diggante tubaab yi. Hmm. léegi loolu dañ ko war a yëg. Hmm. buñ ko yëgul nag nga xam ne fu ñu ko war a yëgee nu sakk foofa. ak nii fii li ñuy mujj rek. fonk leen bëgg leen naw leen boo toggee sax bu neexee ñu ne togg tubaab la boo toiletoo ñu ne tubaab la boo ñëwee heure ñu ne tubaab la. ba ba civilisé ñu ne tubaab la. Mhm. parce que euh, ñoom nit ñi ci alxuraan mooy ko alku nit ñi nit ñi nit ñi présenté seen bopp ak nit ñi présenté seen culture ba pare loolu na suñu bopp noonu seexlu suñu culture ah. dafa nekk lu yàgg mhm. donc loolu sëñ Mbàkke ci côté culture bi mhm. ci wàllu diine ji ci wàllu démb ji loolu mu ngi ci woon waaw c'est important jërëjëf jërëjëf Oustaz jërëjëf Mbàkke ci laaj am na solo xam naa bëggoon naa duggaat gaaw rapidement ci beneen point bi ndax foofu moom daanaka. Mm-hmm. lu ñëpp xam loo loo ca wax baax na. Mm-hmm. ndax tam comme am na yeneen réew yoo xam te ñu ngi fiy ñëw. Mm-hmm. est-ce que ñu autoriser maanaam ñu favoriser dialogue. favoriser itam wax ak proposer ñu leen bëgg. ndax Senghor wax nañu Sénégal dëkkub dialogue la. Sénégal c'est un pays de boobu. ak consideration boobu Macron ñëw fi tey bu noonu tey Côte d'Ivoire la Macky Sall war a jógee fii dem fekk Côte d'Ivoire yaakaar naa ne kon ci lay gën a na yàlla baal xaw gën a kii maanaam mu fekk ñu fi daal moo gën a moo gën a moo gën a dal xel te mu gën a neex gën a jafe lu dëgg waaw Senghor dafa waxoon ne mhm. Sénégal réew mu tuut la ci euh, surface bi mhm. waaye réew mu mag la ci taxawaay ak ñi fi taxaw mhm. dëgg la ne senegal réew mu tuut la ci ni surface bi toll nii waaye rëy dana waaye réew mu mag la ci ci àdduna si <laughs> loolu la yàlla defal moo tax dem fële toog woonu mm-hmm. léeg-léeg nit ñi duñ ñu ko defal dañu ñëw fii mm-hmm. fekk si dafa am menn at suñ mbàkkee mm-hmm. euh, Faysal ma li woon ca mag def benn tournée ci Afrique mu ne Sénégal moom duma fa dem senegal duma fa dem ku ma soxla fekk ma Mali wala dëkk sàngam waaye Sénégal moom. sama tànk du fa jaar. ndeysaan. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> na laaj ma war a dugal. ayca bàyyi. déedéet na solo di. booba sunu mbokk Moustapha Cissé rahmatullahi alayhi. Mm-hmm. loo. Moustapha Cissé déedéet. ah ba Moustapha Cissé bu pire. xalifa ah moo dox diggante réew mi ak arab yi. ambassadeur. mu la dàllam dem ne Faysal lu tax nga ne ñëw doo ñëw Sénégal. mu ne ko parce que yéen amu leen président boo xam ne bi jullit la. mu ne ko loolu la fay tee ñëw ndax loolu aw lay la. ndax bëgg nga ma nekk la ni ñu amee indépendance ak ko amee ak mu ci jote ndeysaan. moom moom ba mu yàgg mu ne ko foofa lay njëkki. allahu akbar. Moustapha Cissé. mu ne ko foofa lay njëkki. wallaahi wallaahi ndeysaan. réew mi yàgg naa mi waaw kon réew mi tuuti na. waaye rëy na lool. lool laa bëggoon a wax. wa shukran lu am solo la macha allah macha allah. jërëjëf kon bala ngaa daw ci beneen côté bi. Mhm. Euh, suñu mbokk gëndar yi. waaw suñu frontière bu la ci mhm. euh, fan yii coow li bari na ci lool ba bakkan daanu ci. Mhm. Euh, wala daanuuti ci daanoo ci waa daanuuti ci. ban jàngat nga ci am. jàngat bi mooy. ne naar yi bàyyi leen rey. waaw bàyyi leen rey. ci rey moom na nekk fële ñu bàyyee bakkan ki joxe woon bakkan di jël bakkan yaa dugg sama frontière dama lay rey nan ko bàyyi ay naari bi fii ci dëkk bi ñu ngi lay dégg du dëgg jégg nañ seen frontière ba ak si Dakar waaw tey seen gileem yi tey ñay napp jën ñii dañuy napp marchandise sax xaalis nañ bàyyi rey mhm. dégg suñ waxee nañ bàyyi rey nag ba téye seen loxo dugal nag gaa yi ci Sénégal yi ci biir néeg mhm. ne leen nañ bàyyi xel ci frontière bi fii la yem mhm. yéen tam bàyyi leen xel ci loolu mhm. ndax untur aqaaka zaliman aw mazluma sa mbokk buñ ko tooñee ak bu tooñee dimbale ko mu ne ah man de xam naa buñ ko tooñee mais bu tooñee dañuñ koy dimbale mu ne wax waxtaanal ak moom wax ko dëgg <laughs> fii la fii la fii la ndox mi yem <laughs> jéem a la yem foofa ak lu mën a xew jéem a la yem foofa waaye nag yéen itam bu mu tax ngeen rey nag <laughs> bakkan moom kenn du ko war rey nag moom bokk ci moom bokk ci loolu laa waxoon fële ca ca Casamance ca kero ca bant ya rey daal moom na doon li mujj am dëgg la mais oustaz ñun li ñuy rey dafa bari de sénégalais yi boo dégloo da gis ne maanaam bis seet nga dégg ci état yi ñu ne fetal nañ fa euh, ab moodu moodu léeg-léeg nga dégg ko Libi léeg-léeg nga dégg ko ci réewi Afrique yi. xam naa damaa xamul ba xam sénégalais yi ñoo xaw a amuk dëgër bopp nañ ma baal ci waxin wi wala suñu kilifa ñoo ñu taxawut ndax fi mu ne léeg-léeg nga dégg kuñ bëgg woo sax ñu ne kooku daa am nationalité Amérique de wala ñu ne kooku européen la de kenn ñemewu koo woo ndax suñu kilifa ñoo ñu ñagewut noonu wala lan. am na lu ci xewit sëñ Mbàkke mhm. gis nga bu ab marocain di day dem ci ministre ba yor wàllu bitim réew. ne ko man maay diw. diwee sama yaay diwee sama baay. nangam mi at laa am maa ngi dem dëkk sàngam. mu yëg ni diw jóge ci dëkk bi mi ngi dem. noonu nag léeg-léeg nga gis koo xam ne ci day day def mu xaamara. waaw loolu de moom bari na moom. waaw mu xaamara gi mooy yaa ngi dem. te waxoo waxoo sam réew maa ngi dem. xëy rek buub say bagage xëy rek buub say bagage dem Mauritanie far ne naa jàll Maroc seet seet yoon nga war a demee nga demee ci yoon woowu loolu mën naa tax nga réer sa réew mm-hmm. mm-hmm. bokk loolu mën naa tax mm-hmm. te su boobaa kooku léeg-léeg dañ koy dañ dañ koy def dara ba noppi nuy seet ndax Sénégal laag du sénégalais ndax moom laag du moom nañ ma baal ci kàddu gi donc looloo tax fële bu ñu gaañee kenn ñu xam ne effectivement gaañee ki ñu daal jóg taxaw ca léegi sunum réew noo war a taxaw ci su sunu gone yu jógatee bëgg tàggoo nu nangul leen tàggoo bi wutal leen ni këyit ñu dem doom bu légal dem bu jaar ci yoon su boobaa koo ca pes ñu ne diw lañ pes penc mi xam ko te it war caa jóg jógin woo ne bi dañoo pes ab Sénégal ci mhm. bitim réew mhm. Oustaz xam nga léeg-léeg tàggoo gi moom bu euh, li nga wax noonu lu am solo la mooy tàggoo gi war na waaye bu fekkee tàggoowuñ fii réew mu sénégalais nekk rek Sénégal a nga waat ci biir ndax ambassade yaa nga fa conseiller ña nga fa léeg-léeg léeg-léeg nga dégg ñu jàmbat ne consul bi kenn mënu koo gis wala moom itam day mel ne daal ni kilifa gi meloon fii rek la mel fële la am solo bi ma Italie ba dem ca consulat ba hmm. soxna Xadi Sall peut-être su ma juumul lu mel noonu la hmm. waxtaan nañ ci waxtaan wu mu ne ma nun li nu gënal mooy ku ñëw fii bu fekkee tàggoo Sénégal boo ñëwee fii nga ñëw ci nun gis nu nu xam la mhm. waaye ñoom it neexu ñoo gis dégg naa xam sa waaw xam sa adresse mhm. xam sa fi nga nekk mhm. ma ne ko may dégg naa neexu la na gis mu ne bëgg nag ñu a gis moo tax fii nu jël léegi nu jël ko mu yaatoo nii réye nii loolu yaatoo nii réye nii gis nga fooykaay mun naa ah, mën a ko mu ne ma ñi fii ñëw di indi seen doom yi ñoom la ñoom lañ ko fi indil pour bu ñëwee nu patienté bu kenn génnee kenn dugg subaak ngoon nu xëy ci ñoom ba ban xamante hmm. ñu xam leen nu xam nu nu xam seen adresse fi dëkk ba ko toxu it boo ñëwee barab sàngam laa toxu su ko defee jàmm na ñooy hmm. suñu bàkk loolu itam daa war di leer ci seen diggante lu am solo waaw naa ne cati na trop waaye daal ci wàllu autorité moom dañu yaakaar ne autorité moom nëbbatu moom daa mel ne moom mooy mbiram moom daal nekk autorité jege askan moom lu jafe la ci suñu suñu dañ ko war a def nag aw askan moom boo la nekk la ci bitti yëgal ne askan wi nga fa nekkal. Mm-hmm. toogal la wax la ñoom yi askan wi yëg na yow ñii ñoom nga fi nekkal. Mm-hmm. la ni ñu war a traité kilifa. Mm-hmm. jàmm na ñooy tabarkal la. jëf. dem te ñëw dem te ñëw incha allah. fañ dem duñ fa yàgg incha allah.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 sallallahu taala alayhi wa sallama haysu quriyat aw kutibat aw nusira ilayha abadan amin ya rabbal alamina wajalha mima tataqana biha hurul hin wal wildaanu fi ljannati allati wuhida almutaquna wajalha min ahabi sukri ilayka wa ilayhi alayhi salatu wassalaamu بسم الإله ينملها بلا مناي ولن منايا على البهايا بسم الله ngeen jëf ci ànd bi ak Sud FM seen rajo 10h moo jot ba teg juróomi simili di jégalu nag ci bref yi tabaarakallahu li ko waral mooy yëgle yi moo xaw a euh, kii tuuti tabarkalla te itam wàññiwul dara sotti ceeg def ci la ndax ñoo leen waxoon kaay leen ñu daal ñëw yéen ñi ci ñëw leen oustaz Alioune lu ci rek mu jox ñu rendez-vous douze allah incha allah bu ko defee balaa boobu ci diggante bi xabaar bi tamit danañ ci dugg mm-hmm. egce gu ñu foofu xam naa mbàkk kon li des mooy rek wàllu auditeurs yi wàllu auditeurs yi ci topp ñu ne ci biir réew mi ak ñu nekk bitim réew yëpp 98. kii de nee na daa bëgg ñëw balaa ñëw daal. Imaali dalal ko. asalaamaaleykum. maaleykum salaam na nga tudd fooy woote. Assane Diop. Alxasan Diop. maa lay jaar baax a baax. waaw dama am benn question moo doon laaj. jërëjëf bisimilah uh-huh. dafa am benn conférence bu fekk woon Dalifort. waaw. Modou Koule woote euh, waxoon ni may na Oustaz Alioune Sall terrain. waaw. damaa bëgg a laaj ndax Oustaz Alioune Sall jëm na si terrain wala jëmul si terrain. d'accord. waaw parce que dafa dafa yitteel waa daara bi. Mhm. parce que nit bu nga mhm. digg si nga taxaw si mbooloo ñu may naa ko terrain. Mhm. léegi kon ku koy may terrain dafa jiite ay mbooloo léegi nag dañu bëgg a xam ndax terrain bi jot na si wala jëm d'accord. loolu moo doon sama question. incha allah Oustaz dana ci ñëw léegi. incha allah. jërëjëf sëñ Assane Diop euh, ñu ngi koy jaajëfal baax Oustaz Alioune am na keneen kuy ñëw noonu. 88 628 98 98 33 841 22 33 allo. waaleykum salaam. waaw yaaram na nga doon fa woote. Oustaz Alioune Mbaye ñaanga mbeng la. ñaanga mbeng. waaw si <laughs> euh, ñoo bokk muus léegi quoi. <laughs> dëgg la. ah ñaanga rek maa bëgg a trahir wala nag ñoo boole. ah déedéet wala boole boole naa leen rek. ah non sa waaye kon de xam naa dinaa xaw a kii tuuti de. mënumaa dem bàyyi kenn daal naa leen boole leen <laughs> kon baax na kontaan naa ci loolu. Ah, jërëjëf waay ñu leen di caaru baax. jërëjëf yàlla yàlla nangu si yaar. Oustaz Alioune Sall ñu koy caaru baax baax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. <laughs> ñu allé passé maa doon laaj ñu bi mu jëm ci surtout xaj ji. waaw surtout xaj ji. waaw daa xawoon a kii rek. a cate a cate. Mhm. waaw mooy aay mujj ci aay bi rek aay surtout xaj ji. surtout xaj ji ji ci mujj. waaw beneen bi mooy. waaw damay damay faral dégg damay faral dégg nit ñi naa sama bopp moo sama bopp ma la gënal bañ naa la ko ma ma koy bëgg a méngaleeg addis bi naa uhibul axi kama tuhibbu nafsika. waaw damaa xam daal nu ko ni ko nu ko mën a dégg daal. ndeysaan. damay dégg penc de faral waxee na daal ma bëgg comparé ñaari baat yooyu ba xam daal nu ko tax dégg. incha allah incha allah. ñu ngi leen di xaar baax nag. jërëjëf. <laughs> jërëjëf ñàng meng Oustaz Alioune di wootee rom ñu ngi koy nuyu di nuyu waa Rome yëpp di jot na ba teg juróom-ñeenti simili. waaw jaarukaay rek 88 jël bisimilah bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum yàlla yàlla nangu siyaar. Góoru hmm, na nga def. ana Soxna Caba. Soxna Caba mu léegi Caba moom mooy jigéenu kan. jigéenu Ibrahima ndax yàlla ñu xam la bisimilah. waaw yéen a <laughs> jërëjëf jërëjëf. yàlla yokk wér wér. amiin yaa rabbal aalamiin amiin. Euh, olof ñu wax allo. waaw waaw. dañuy baaxoo wax naan waajur la doom nen. Mhm. ñu ngi lay dégg. ma ne la. waaw. est waajur yëpp ñooy doj. Mhm. ci setam doom yëpp ay nen la loolu laa doon laaj. Mm, d'accord d'accord. d'accord waaw. jërëjëf. jërëjëf góoru caba imaal yi noppi na ci duggam bu am solo boobu. waaw waaw dégg nga waaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. Moustapha Mbaye 313. Moustapha Mbaye 313 bisimilah Moustapha. ñu ngi leen di leen siyaare di félicité waat tey waxtaan bi am na solo lool. alhamdulilah. ku ne war ci jëlee njàngat. Mhm. ci sa bopp. gan moom gana la rek lañ ci xam. Mhm. te ñaanal ko mu dal ak jàmm. li wax rek ni ñaare day saa su ma koy laaj dafa am ñoo xamante ne ñaare da ngay nekk ak ñoom. ñu faral di sol ay yére yu cëkk mais soo nekkee ñoom ci seen wet ñu tuddee seen bopp Ibaadu Rahmaan ñoom jàpp nañ ne ñoom rek ñoo gëm yàlla. da ngay dégg ñu ne laan xaraam da ngay def leen affaire sax ñu ne la xaram comme ñoom nekkañ bi ñuy nekk yow. même booy jullee ak ñoom wala nga taxaw si yenn kii sax ñu ne la lii xaraam ak commencé di la wan beneen melokaan boo xamante ni est-ce que jotul ñu xamal nit ñi lan mooy ibaadu rahman parce que ñenn ñi moom xamuñu ko dañ koy jàpp ne nag bu solo ci réew yër bu cëkk rek moom mooy ibaadu rahman hmm. beneen bi bi benn jigéen soxna moo ma ko laaj munu moom ñaare waree fi jëkkëram moom dana def waree sam jàpp na ne noonu la mais jëkkëram lay waree sam moom lan la pour mu xam ko ci jabaram parce que lu ci bari du ko def ci li nga xamante ne mooy diggante moom ñoom ñaar bu ñu nekkee ay sonn naa lu ma ñëwee du ma def ñëw yooyu loolu la bëgg a xam daal oustaz fekk ko ci naan salaamaaleykum wa rahmatullah. maaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf 88 628 98 98 mbokk mi daa bëgg a bokk asalaamaaleykum. waaleykum salaam Serigne bi na ngeen def. waaw kay jërëjëf yàlla ñoo ngi sant bu baax a baax. waaw man la yaat ma yaat ma mbóoj ci njàng ba mbóoj. ci suñu yaat ma mbóoj naka waa njàng ba mbóoj. ñu ngi si ñu ngi sant yàlla yéen ah, nag. ah kay ñoo ngi nii ñun tam ñoo ngi sant de Oustaz Mbaye ngi nii sol daakaande ju saf. <laughs> yaat ma yaat ma na nga def. waaw waaw man nag eh, xam nga lan laa bëggoon laaj. waaw xam nga feet yi dafa bari Sénégal trop may laaj ba xam ndax loolu moom islam am na ci wala feet ñuy def waaw ba nangu ñoo liggéey lu bari daal. d'accord mhm. waaw sa tamit euh, dafa am benn waay boo xam ne benn correspondant la ci région yi. Mhm. xaw ma wala fajri xaw ma la nekk. Mhm. moom daal buy wootee yenn saa yi buy joxe antenne bi day faral di woy mën na luy woy. waaw mais léegi xam nga loolu. comme ni Ngor Sarr di def naan Ngor Sarr <laughs> comme moom ci ñun la bokk. waaw boo d' accord d' accord. ndeysaan am na solo. <laughs> jërëjëf Yatma Mbodj Njang Ba Mbodj Ima Ali Mbaye ñu jaajëfal ko. wallaay ndeysaan jaajëfal ko bu baax a baax. te waa Njang Ba Mbodj. jëlal kooku. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaw yaaram na nga tudd fa woote. maa ngi tudd Xaadim Jaw xaadim jaw uh-huh. bisimilah Baye xaadim uh, dafa am benn question bu mm-hmm. bu laaj bu ma yàgg sonal mm-hmm. parce que dama dégg ñu ne ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. la ñu dajale alxuraan daf ko daja dajale daal dama xam dajale boobu nag ay saar lañ ko dajale wala ay aaya su fekkente ni ay saar la lu tax kon may may ñu naan des fois yonent bi Euh, joxe surtout que fi ñu koy jàng par ajuma mhm. waaw wala yenn saa yi muy joxe daal ñu siy def ñu siy def dara daal mhm. Mhm. waaw loolu daal laa bëggoon a laaj jërëjëf am na solo sëñ Xaadim Jóob laaj bi am na solo wala jaww ñu ngi koy jaajëfal baax a baax tey bëgg duggam bu am solo boobu di ko ndokkeel 88 628 98 98 33 841 22 33 asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. bismillah. sëñ Mbacke Sylla. waaw Cheikh Abdou Ndiouk. Cheikh Abdou ñoo ngi lay nuyu Ndiouk naka waa Italie. ñu sant bu baax a baax. alhamdulilah ñoo ngi lay nuyu baax te di leen siyaare. ñu leen delloo siyaare nuyu Oustaz Alioune Mbaye. jërëjëf mi ngi lay fay ndeysaan eh, nuyu Oustaz Alioune Sall. mi ngi lay fay baax a baax Ndiouk. Eh, di leen siyaare bu baax a baax di rafetlu waxtaan bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf. léegi dañuy gëj di woote nag waaye moom duñ toujours ñu ngi déglu. ñaare dañuy def euh, fu ñuy fekk dañ du mën a woote rek. ndeysaan xam nañ ko bu wér liggéey bee koy kii léegi léeg ndax hmm, boo fekkee da yor oto di dawal moom ñaare di wax ci téléphone day xaw a yéeme. waaw ah, day soogi ñaagaan. <laughs> waaw waaw kay <laughs> ah, waaw jaa ngi euh, waaye ñu ngi am mbégte bu baax a baax a baax ci waxtaan fajar yeeg euh, yëpp daal ñu ngeen di jubbantee doomu aadama daal ñu ngi ciy sant bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. ndax ab ab jàng la mbind la bu baax a baax ci ñi nga xam ne mënuñoo gàdd àlliwu dem àlliwoo dem ci daara ji. ndeysaan. waaw njàng la moom bu baax a baax a baax ko topp daal moom wax dëgg yàlla moom lu ci bari da koo da nga ko da nga ko rabawaat fekkee ku ku jàngoon nga da nga ko rabawaat fekkee ku kiiwutoon it da da nga ci mën a jëlee ab bind. wax nga dëgg kay ndeysaan. yàlla yàlla leen sunu borom fay. amiin yaa rabbal aalamiin moom am fay. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. Cheikh Abdou ay siyaar la indi moom kon ak yu demee noonu ci jotaay bi. jërëjëf Cheikh Abdou ñu ngi koy nuyu baax di siyaar waaye Itali gépp di nuyu itam Ñanga Mbeng macha allah. ndeysaan ak si yow nu ma <laughs> ca Rome borom ceeb ko cartonné. ñu ngi koy nuyu sëñ ngoor Dia moom itam sa soppe boobu mu ngi lay nuyu. waaw waaw baax baax. <laughs> jërëjëf asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. yaaram na nga defee woote. Ah, sangu mbokk yi ñu ngi ziar baax. alhamdulilah yal na yàlla na ko ziar. donc saa ñu ngi koy ziar bu baax a baax. alhamdulilah mi ngi lay delloo ziar. ñu ngi suñu cofeel ci moom. jërëjëf jërëjëf. waa dama doon laaj rek. Euh, tur ñu andil ci ci Yaasin. na nga tudd. Serigne Mbaye. Serigne Mbaye. waaw surtout Yaasin. waaw alam ahad ilaykum ya bani adam an la ta'budu shaytan mhm. ba ca fin ba. d'accord. ak euh, dañ doon laaj ba xam est-ce que doom sañ na wajuram génn àddina mu may mu may wàllam ci ndond. d'accord jërëjëf am na solo. ñu ngi koy jaajëfal Serigne Mbaye jërëjëf ci dugg boo am solo boobu 10h jot na ba teg fukki simili juróom benn kon benn xaaj bi jàll na dese ngeen ab xaaj ngir man ñoo dab indi seeni laaj ci jotaay bi imaam yi bisimilah bisimilah waaleykum waaleykum salaam wa Alaaji Mbaye na ngeen def waay. ñu ngi sant bu baax a baax. Màkka si Lo sax waaw kay Alaaji na nga def. Moussa Ciss Morolan. Moussa siis naka waa Morolan. ñu ngi lay siyaare bu baax a baax. alhamdulilah. ñu ngi jot ñu nuyoo kilifa yëpp. jërëjëf da ngaa dend waaw oto laa nekk sax. ah oto moo tax damay gàttal. oto wala wata. wata. <laughs> dama la laajte naam. yaa ayyuhaa llaziina aamanuu Mm-hmm. anfiqu mimma rasaxnaakum min qabli mm-hmm. ila aaya mm-hmm. ndeysaan an yaatee yow mun voilà d'accord dinaa loolu tam wax leen ni Alxaaj Jibrilu Combaan wax na mu ne nag mu ngi leen di éviter gàmm moom le dix boobu la wax loolu de moom commercial la bul dugg ci yooyu Moussa yow ndaanaan nga pire <laughs> ñu ngi koy nuyu tey bëgg moom bu baax a baax imaam ah, bi. Moussa ngi koy baax Moussa Ciss. waxee la de sax <laughs> salaamaaleykum bu mag boobu. Ah, waaleykum salaam. Mbaye Sylla Sall. waa kay Samb. <laughs> waaw maa ngi leen di déglu ba ci émission bi nga def ci guddi gi ak fajar gi moom du ko raw moom. ñaari ustaas yëpp maa ngi leen di dégg. Euh, waxtaan yu am solo yi di leen jotal ñu bàyyi Daaru Jóob nag ci Kër Massar. di ñaan sëriñam ndax dafa yàgg ci ñaan jàmm ci réew mi. di kontaan ci liggéey bi rafet di ngeen di def ci rajo bi. li li may laaj rek tey moom mooy est-ce que am na ñaan yoo xam ne dañ naan boo ko ñaanee dina neexalum xel ci xale buy jàng wala yu demee nii. d'accord kiis. waaw. Mhm, d' accord. <laughs> waaw loolu daal mooy sama laaj tey. jërëjëf nuyul ma Balla Dieng. Gora Baye Fall ñu ngi koy nuyu baax baax Kër Sega ak waa Njaareem yëpp ñoo ngi leen di nuyu rawatina waa marché Ndoumbé Diop gi ñuy bàyyi xel ak waa kër gu mag ñoo ngi bëgg ci yéen Ima li jëral kooku. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw ah, man la Mouhamadou Médor. Mouhamadou Médor. waaw Médor Médor na nga def Médor. Médor. ah ndeysaan mi door jërëjëf waaw guy doon Saliou Mbacke. maa ngi lay fay baax a baax. Mbacke si la ah déglu seetaan naa la déglu naa la. waaw ndeysaan. <laughs> macha allah macha allah. waaw man man man li ma doon laaj mooy suñu borom xam hmm. waaw boo euh, bu muy wax lakum diinukum waliya diin. boobu daal bëggoon naa mu gën la parce que léeg-léeg nit dañ koy jëfandikoo daal te duñ duñ war a gën a xam masala bi naka lañ koy jëfandikoo beneen bi mooy su may daanale mooy. Hmm. Euh, am na ñu nga xam daal julli de fu wax julli daal fekk des daal place yi nga xam ne koy julleet euh, daal dafay ñàkk ñàkk di set daal li ma la ko mën a waxee daal dafay place waaye du lu du fay neex julli rek pour jàkk mhm. waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf Mamadou Medor a ngi noonu ñu ngi koy jaajëfal Oustaz Alioune ci lakkum diinukum waliya diinim jooju mu indi di ko ndokkeel baax baax di bég ci moom Mouhamadou Medor euh, imaam li am na ko egsi asalaamaaleykum waaleykum salaam euh, soxna si na nga tudd ak woote ça va man la taalibi si la maa ngi wootee si Tamut la. jërëjëf sama taalibi def. alhamdulilah. kontaan nañ ci waxtaan yu baax a baax. jërëjëf. dama bëggoon laajte waxal ci kaw bul ma gën a seex. dama bëggoon laajte oustaz hmm. gént souvent di jàng inna anzalnaahu fi laylatul xadar wala ma koy jàngale daal ma bëggoon mu firil ma ko ma. Hmm. inna anzalnaahu. waaw d' accord. ok merci beaucoup. macha allah jërëjëf nga sama taalibe ni ñu ci yàlla. ngeen di jàng alxuraan yëpp la ñuy def jàngale. ay tàggal kooku jële kooku. salaamaaleykum. waaw salaamaaleykum salaam. daal bi moo de yaaram na nga eh, man la El Ahmed Tine. Ahmed Tine. Eh. El Hadj eh, <laughs> la kut. asalaamaaleykum. dem na. <laughs> alxaaji Ahmed Tine dem na ñu ngi koy jaajëfal a baax. <laughs> gars yi Ahmed Ahmed jéemal waaye. des waaw kon day douane corps la quoi. ah ok mooy. <laughs> waaw. Ah, maa ngi koy fàttaliku Médine maa ngi koy Médine. aywa jëlal kooku. est-ce que asalaamaaleykum. waaleykum salaam. yaaram na nga doon fi woote. Cheikhouna Sylla Colobane. Cheikhouna Sylla. waaw sëñ Mbacke maa ngi lay ziare bu baax jërëjëf maa ngi laa fay baax a baax si la Maxtaar naka suba si jërëjëf si la sant rek di ziare Oustaz Sall bu baax a baax alhamdulilah di rafetlu émission bi bu baax jërëjëf si la daanaka commentaire yi ñu bëggoon a indi sax daanaka daa mel ne da ngaa saako suñu lanc seetal loolu dañ ko lancandoo yaaram <laughs> mu ngoo macha allah <laughs> waaw indi woon ñaari laaj rek waaw waaw sóoru naa di surtout xadiit yi waaw aaya duus yaakaar naa xadiit yi aaya duus waaw yama yaqulul munaafiqoon wal munaafiqaat seetal loolu rek waaw oh. ak euh, mu demal ma fële ca sóoratul euh, jàppatuma kii bi waaye ulaayka euh, xisbul ulaayka xisbu saydaan alaa inna xisbu saydaan humu xaasiroon mhm. ak ulaayka xisbullaahi alaa inna xisbullaahi humul mufi'uun mhm. waaw ñaari kuréel yooyu daal mu tojal ko ak waaw ak wala ne ak yow ma di ko wax am na ay soppi ñu koy jaare fii nag alaaji sëriñ ja ak mhm. yeneen gaay yu bare bari baana jërëjëf sukran mbokk moomu di naa Silla Maxtaar di wootee foofu wala ngaari eh, <laughs> wala jëwrin foofu ci Colobane di ko jaajëfal. waaw di ko jaajëfal di jaajëfal waa Colobane yëpp Alassane Sarr sama fëte Colobane waa CDI ñu ngi leen nuyu ñu baax a baax di nuyu waa Trésor suñu jigéen ñu baax ñi Trésor Rufisque Trésor Dakar yi ñëpp ñu leen di nuyu. tarkalla nuyu ko bu baax asalaamaaleykum. waaleykum salaam. bisimilah bisimilah. ok maa ngi lay ziar. jërëjëf yal na yàlla nangu ziar. naka yi tey na nga ci jàmm. mu ngi ci jàmm ba alhamdulilah. maa ngi ziar euh, ñëpp ñuy déglu Sud FM. jërëjëf. Euh, di kontaan aussi ci seen émission bi. Mhm. leen wax ne saa su nekk euh, maa ngi leen di déglu bu mhm. baax a baax. Mhm. kontaan naa trop ci yenn ci xam-xam bu ngeen nekk di partager avec tout le monde. kan la. man la Badji. Hmm? Badji Badji. Badji xaw la yëkkati kàddu gi tuuti yaaram maa ngi tuub de. ma ne man la Badji. waaw Badji waaw. voilà mhm. maa ngi ziar ñëpp di ziar Oustaz Aliou Sall. jërëjëf. Euh, di leen ziar kenn ku nekk turam ak santam. san léegi daal lu ma bëgg a lu ma bëgg a laajte. Hmm. lu a laajte mooy ci wàllu ngénte ba xam ndax mun na nekk. lan ci. Euh, maanaam keroog dama doon laajte après faaw sama crédit jeex ngénte damaa ngénte maamu maamu Abdoul Aziz. ba euh, trois fois moom ak Serigne Moustapha Sy. Mm-hmm. ba ñu ne maa demal ñu ñaanal ma mm-hmm. léegi bu may bu may dem man euh, Moustapha Sy ne ma booy dem wax ma ma yo ma yóbbu la fa boo fa demee bu nga ñaanee sa affaire bu baax mm-hmm. sa affaire dina baax yàlla def ne ma dem foofu ba moom balaa muy wàcc liggéey ñaanal na ma mais kii kii kii nag nii ku bees ki tamit ma gëntuwaat ko dem ba foofu may dem encore gisaat Moustapha Sy fee Moustapha mu may xaar ci yoon bi mais ma dem ak ci moom mu ne ma yow laa doon xaar léegi ma dem ba Tiwaawoon ak ci place ba fekkee ku bees ku fa nekk mu doon jàpp mu jénn rek sànni kaala bi mu daal di kabar di julli mm-hmm. euh, après encore ak euh, président bu France bi ñëwoon bi nii mm-hmm. gént naa ko ak président Amérique mën ngaa gént benn océan man aussi nekkoon naa ci mm-hmm. donc ba mu ñëw président France ñëw ne ma kii laay doon seet emat kii bu par exemple Amérique. Mhm. léegi ci biir océan bi la ñu nekkoon. Mhm. man ci kii laa nekkoon léegi may laajte ba xam loolu lu mu doon. am na solo jërëjëf oustaz nañ ci ñëw léegi. ba ji jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax imaam bi. <laughs> asalaamaaleykum. waaleykum salaam salaam oustaz. waaw yaaram El Hadj Ahmed. Euh, allo. El Hadj Mbacké man la El Hadj Ahmed Tine. waaw kay El Hadj Ahmed Tine Tine bisimilah. bisimilah El Hadj Ahmed. Euh, jërëjëf jërëjëf jërëjëf Oustaz Alioune lay fay. Oustaz Alioune Sall. ndeysaan. jërëjëf jërëjëf. di ci lool nag. alhamdulilah na ñoo déggante lool. ah moom kay tubaarkàlla da ngaa fatu xam naa. <laughs> lenn <laughs> lu mujj bunt la. waaw ci euh, El Hadj Malick. ndeysaan waaw El Hadj Malick Ndiaye daf koy wax lu bari. El rek. Mm, ndeysaan ndeysaan. Eh, naka championnat bi. championnat ah ñu ngi góorgóorlu ren moom. a ngi nam na bi. <laughs> moom. te wax naa wax naa wax xale yi. waaw. ni ni ni ni doon doon doon xutba euh, ci jëf yu baax. waaw. bët bët jox joxe ci misaal ci football. Mhm. jottali naa naa leen ko. kon baax na <laughs> kon baax na léegi nag dama doon laajte. waaw. Eh, eh, ku mu ku mu firil daal suratu eh, iza zulzilatil ard mhm. ak alhaakumut takaasur mhm. ñaari ñaari ñaari saar yooyu. incha léegi bi nga duggee Oustaz gi wax ak yow far mu dagg. dëgg la dëgg la far mu dagg waaw. kon baax na. léegi nag dama bëggoon tamit. <laughs> Hmm. dama ko yóbbante woon El Hadj Mari Ndiaye. Mhm. loolu moom loolu moom sama wàll la ak hmm. dama dama ko doon El Mari man damaa dégg Oustaz Alioune toujours muy wax football wax nawetaan. Mhm. maanaam kon sportif la woon. Mhm. nawetaan nu Mbàkke. waaw. Euh, ma dégg Ustaz Alioune. waaw tamit léeg mu wax ba muy ba muy nawetaan. waaw euh, ni koy waxee sax dëkk bi Malicounda. waaw. <laughs> waaw la doon def. waaw basket. déedéet waaw xanaa Oustaz Alioune moom kon xanaa basket la doon xanaa gisoo Oustaz Mbaye. man il est droit laa yor il droit laa <laughs> man latéral. latéral de dóor ci tuuti. mosuloo ko dégg mu eh, muy eh, <laughs> ma. Eh? Taseet Cees ak Nooto Joba foofu yëpp boo boo laajte Alioune Mbaye gis. bon lu ñu wax. Onda rek. <laughs> man daal man daal sa bu dee basket laa def daal ma ñëw jël ko léegi entraîneur basket. ok am <laughs> dem na. ay. <laughs> oustaz suñu équipe bi ren moom da nga ci da nga ci góorgóorlu. <laughs> bii. waaw waaleykum na ngeen def. waaw yaaram na nga tudd fa ba tey. Babacar waaw saa nga def. wala ngay jaay. jaajëf. jërëjëf Ndiaye bisimilah. sama xarit bi na nga def. maa ngi sant bu baax Mbaye Ndiaye Ndiaye. jaajëf. Mm-hmm. <laughs> waaw dama bëggoon laaj oustaz. Mm-hmm. damay dama am tuuti xel bu xaw a werante quoi ci suratu Kahf bi. Mm-hmm. ba xam àjjuma la wala mën nga ko jàng jeudi si guddi quoi. waaw dama bëggoon mu xaw ma leeralal tuuti foofu daal àjjuma la wala samedi si guddi tamit ba xam mën nga koo jàng. samedi si guddi wala jeudi. oui jeudi ci guddi. d' accord jeudi ci guddi quoi wala àjjuma. Hmm, d' accord. waaw léegi question bi may laaj nag mooy. Hmm. dañoo am benn ma dégg. Hmm. mu lu mu wax léegi may laaj oustaz. ba xam yàlla dafa am fu mu wax ci alquran ni ngeen amee xaalis baax na. comme man dama ko teeluwul xëy na moom moo ma gën a xam mu leeral ma ba xam yàlla dafa wax ci alquran ngeen amee xaalis baax na. incha allah waaw salaamaaleykum wa rahmatulah. salaam wa rahmatullahi mbay Ndiaye Kër Massar. waaw naa ñu jël suñu auditeur bu mujj boobu wala. daa kenn ñu kooku. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah bisimilah. ñoo leen ziar. jërëjëf yal na yàlla nangu. rëy tey. ñu ngi ci alhamdulilah. jërëjëf jàmm. macha dama amoon ñaari laaj tey. ak ñaata soble. <laughs> ayca bisimilah. maanaam. na so so Moussa Fall. Moussa Fall. ay ci bismillah Moussa Fall waaw maanaam ajjuma bu imam toogee ci minbar bi ba commencé di xutba ndax ma ne dafa naafila wala mu ne sufa naafila. d'accord baax na. beneen bi mi ngi jëm ci njàpp diggante masaam bopp ak nopp yi maanaam bopp bi ñaata yoon lañ ko masa ak nopp yi ñaata yoon lañ ko war a masa. d'accord jërëjëf. jërëjëf jërëjëf jërëjëf Moussa Fall ñu ngi koy jaajëfal. Fall ki nag yaakaar naa moo nekk auditeur mujj wala jërëjëf kon nag xam naa ñu bàyyi nga dem lu ñàgg lu ñàkk doo fa yàgg si sama. jërë ngeen def ci am seen rajo wax nga dëgg fañ jëm duñ fa yàgg tabaarakallaahu ñu leen di dégtal rek suñu partenaire yi nga xam ne ñooy ànd ak ñun bu ñu tollee ci fanweeri simili ci 10 heures. dina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman jërëjëf jëf ci ànd bi ak Sud FM seen rajo ba ngeen xoolee seen montre 10 heures moo jot ba teg fanweeri simili ak juróom Oustaz Alioune lu ci tegee jaajëfal la bu baax jaajëfal tam suñu mbokki partenaires yooyu nga xamante ni duñu dañ mukk di leen Mbàkke wallaay euh, di si jëlal sëñ Aliou Lo ndobu maam jaara ñoom xam zaak mbokk yu baax yi nga xam ne nekk ci barab bay liggéey ndeysaan tey mooy njaatigéey sponsor yi ci émission bi mhm. dëgg yàlla yal yàlla defal leen jàmm. amiin yaa yi ñëw ak ñëpp itam ñu ñaanale yàlla yàlla barkeel seen liggéey. amiin yaa rabbal aalamiin amiin amiin ñoom Madaa rek euh, waa seen karo kër xaadim ak euh, sponsor yi nga xam ne ñoom la ñuy àndal ñëpp rek xam naa ku lim juum waaye ñoom ñëpp ñoo ngi leen di ñaanal ñaan yooyu nga ñaan yàlla na nangu. amiin yaa ñu doole ñaan tam mbokk yi duggoon ci serveur bi. serveur bi comme daanaka day taxaw taxawaayu sponsor. dëgg la macha allah. dëgg la kon yàlla barkeel leen ñun ñëpp. amiin yaa rabbal aalamiin. su defee kon xam naa bu loolu doyee ñu mën a dugg ci lekk allah bisimilah loolu war naa mën a ne. <laughs> loolu doy na sëkk tabaarkàlla. yàlla uh-huh. yàlla nangu ñaan yi ñi ñaan saa bu ñu toogee ci jotaay bi. Uh-huh, jërëjëf Oustaz uh, Sall jërëjëf sëñ Mbacke Oustaz uh, mbokk mi dikk jaar ci guum gi. mooy sa mbokk ma di Alxasan Diop. Mhm. Xasan nee na dafa am conférence bu ñu defoon te dali foor moo du xulle digéenu digóol la fa terrain mu laaj ndax jot nga ci terrain wala déet bismillahi rahmaani rahim subhanaka laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta al alimul hakim mhm. tont li mooy déedéet wa shukran ci laaj ba am sala bi jërëjëf kon nag Mbacke Ndianga Mbengue moo ci topp. Ndianga Mbengue ci topp Rome lay woote Oustaz ñu ngi koy jaajëfal baax baax te di ko ndokkeel di bëkki duggam boo am solo boobu Oustaz eh, Ndianga Mbengue nee na li olof Ndiaye di wax bala maa ñëw ci ay alxuraanam ji li olof Ndiaye di wax ñaari naan sama bopp ma la gënal du bañ naa la. Mm-hmm. nee na loolu ndax eh, diine moom eh, nan la ko gisee. waaw dana lay wax léeg-léeg bi charia ñëwee ci penc mi dafay fekk aada. Mm-hmm. am na yum ne ko dama koy corriger. Mm-hmm. am na yum ne ko ma ko. bokk na ci yi ma corrigé nag kàddu yu mel noonu mhm. sama boppam ma la gëmal du maañ naa la du wax mhm. mhm. uh, du waxi sharia waxi aada su njariñ loo fekke du waxi sharia waxi aada du dëgg yooyu ay baat la yu bare bari yoo xam ni sharia bi ñooy def ni aada nan ko changé parce que sama boppam ma la gënal du bañ naa la du defarum penc dëgg la ndax nit dafa war a yusuruna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa loolooy sharia waaw nga xam ne mën ngeen yor benn pom nga xiif ma xiif ma jox la ko te muñ mhm. loolooy sharia dafa am génn góor gu doon dox ba mu yàgg aw dàll dàllam réer mu wenn wow mu wër gisu ko mu wàcc wàcc des mhm. ah ñu ne ko lu xew mu ne su ma yóbboo wii day tàggale ko wële comme gisuma ko naa wàcc wii bu for wee for wi mën leen a boole mhm. <laughs> waaw oustaz macha allah. ndeysaan kooku de am na kóolóore. ah man damay fàttali sëñ Babacar. waaw dégg naa ci mujj dundam. sa micro bi am na kii. waaw waaw waaw voilà. dégg naa ci mujj dundam daa daawul xar gura. waaw daaw daaw ko xar. ndeysaan da koy da koy lumbutoon ba mu dagg ko noonu rek digg bi ñu ko lu tax. mu ne ñaar ñoo ba ñu ànd Babacar si fekke wu. ndeysaan du ñëw fi ma leen di tàqale. ndeysaan kon benn bi day lax. benn bi day lax tey waay maa ngi baax macha allah macha allah macha am na solo. am na solo kon daal sama bopp ma la gënal moom du ay wax. déedéet sama bopp ma la gënal du bañ naa la. Ah, léegi nag nit ñi dañ lay gënal sa bopp kon bu boobaa. waaw. wa yusiruna ala anfusihim. day wallaay wallaay. walaw kaana bihim xasaasa. Hmm? même bu fekkee kooku daf laa bëgg a lor rek dangay nangu ma lor la rek. loolu moom yëggu kon kon kon demat naa firi nag. waaw. ndax léeg-léeg eh, ab toogukaay ñëw naaju tàng nga bëgg a taxaw benn toogukaay nekk fi nga naa ah, wax dëgg yàlla joxe ko taxaw na du ma ko mën. waaw léegi nag su boobaa jéem ko joxe te taxaw. benn wax danaa day dugg ci layeeg moom imal mari wala du fa dugg. sunu alam fusim bi wala we sunu alam fusim wala kaan bi mu xasaasa. Hmm. mooy xiif ba mu la tee mën a joxe li nga bëgg. am solo. ndax mun leen a baax te joxul li nga bëgg lan tanaalul birra. lan tanaalul birra xataa tunfiqu mimmaa tuhibbuun. sees boobu nga toog suñu mbàkke waa ji taxaw. Hmm. taxaw bi métti na ci yow. Hmm. taxaw bi di métti na ci yow. waaye nag. lislaam ne ah ginnaaw toog gi nga bëgg mhm. noppalu gi nga bëgg mhm. ker gi nga bëgg boo ko bëggul waa ji ah, dese nga dëgg la lu am solo la ndeysaan bu tax léeg-léeg nga jox sa toogaay ñu jox la bu dàq ba nga toogoon ndeysaan wallaay dëgg la de te la nga dem ci cérémonie ñoom suñu yooyu mhm. joxe sa toogaay ba lay jox dàq ba nga jox gën ko gën koo jege wa shukran tabarakallah <laughs> am na solo oustaz euh, ñàng méng tegal toftal na ci ab aaya waaw mais oustaz euh, ci ci côté boobu xadis yu bëree bëri daa woon nga wax ni comme kun kaati man bu bu sëñ tubaa boobu bu fekkonte waaw kun kaati man li durwal buxda hmm. su fekkoon danañ ko bind ci buntu université yi hmm. wala ñu koy def ci ci yenn programme yi ci place publique yi hmm. ak xadis bi nga wax ni lan tanaalul lan tanaalul bir hatta tunfiqu mimmaa laay yi nga wax nii yooyu kon est-ce que buñ ko mooñaale ba gone yi màggee noonu tey. waaw xam nga ñun tubaab bi def noo bi yar. moo tax moom fa ngay bind yooyu moom daa am lu mu fay bind. il faut être savoir savoir vivre. <laughs> loolu la fay bind. loolu la fay bind. ah sax lu tam baax na de. ci li mu tudde moom sawaar <laughs> parce que moom du doon si him boobu. Eh, déedéet du <laughs> indi moom lii la jëlal du droit <laughs> ndaw nag comme sa droit daal jëlal. am na solo de. Eh, tubaarkàlla jërëjëf oustaz jërëjëf oustaz Alioune ñaa nga mee nga toftal na ci jeneen laaj oustaz joo xam ne alxuraanul karim la ca suratu xaj yi la joxoñ aay ji ci mujj mooy tolloog fa suñu borom di wax naan wa jaahidu fillahi xaqa jihaadihi mhm. huwa tabaakum wa maa jaala alaykum fi ddiini min xaraj millata abikum ibrahim huwa mhm. sammaakum almuslimina min qabl saar wi di alxajj <laughs> yàlla nga ko door a ci yaa yoon naasu ndeysaan <laughs> itaqu rabbakum hmm. te ngeen xam ne inna zalzalata saati hmm. shay'un azim tey mu neex de daal ñu wutal programme nag hmm. bu ma sañoon bu bis ba jotee du ngeen bokk ci ñiy tiit mhm. du ngeen bokk ci ñiy caalit mhm. du ngeen bokk ci ñiy jaaxle di ko jàngale nag di ko jàngale mhm. biir saar yëpp di jàngale nan lañu ñuy def ba boobaa bu duñu tiit ndeysaan bi mu jeexal nag ne su ngeen bañee bokk ci ñiy tiit wa jaahidu fi sabilillahi xaqa jihaadi ndeysaan allahu akbar di leen kër kër yi ci yàlla dëgg dëgg nag. est-ce que. bu leen ko jox. Hmm. Hmm. Hmm. moo leen sélectionné ba boole leen ci ñu war a defar pénc mi kon bu leen sonn. ajtabaakum. ndeysaan. waaw moo leen sélectionné. moo leen tànn boole leen ci ñu war a liggéey ci pinc mi. wa ma jaala aleykum fi diini min xaraj. ndeysaan. te itam teguma leen lu ngeen mënut. Mm-hmm. <laughs> waaw te itam tegu ba ma leen tànnee defar la leen penc mi teguma leen lu ngeen moom mm-hmm. lu ngeen dugg te mënu leen ko rek kere leen ko teg waaye du man mm-hmm. millata abikum ibrahim loolu mooy doxal ñu seen maam ji ma gërëm seen maam ji ma gërëm ba tappal ko garaatu maa kaana minal mushrikiina looloo doonoon programme wa samaakumul yàlla bëgg ngeen baax mu moo tax mu tuddee leen ñi nangu dama bëgg ngeen baax moo tax mu tuddee leen ñi nangu wa samaakum muslimin xablu démb laa leen ko tudde woon wa fii haasa tuddewaat leen ko tey allah démb laa leen tudde muslimoon tuddewaat leen ko tey li yakuna rasula shahidan aleykum mm-hmm. ma bëgg ni ngeen mel boo lëggee yonent bi seede leen. comme seen ne kee ca la bokk. kële ca la bokk indi leen. lu mbooloo mi mu xumb xumb Oustaz Alioune yonent bi seen ne kële ca la bokk indi leen. Mhm. kee tam ca la bokk. aylaay ndaw su lay dem na li malaaka yóbbu dab leen ko ca la bokk ne leen ko na ñëw. Eh, ndaw lu neex. Oh. seet waay waay waay yal na nu xam. wa takunu shuhadaa ala nnaas. Uh-huh. yéen na ku dul yéen yéen a koy seede. Mhm. su ma nekkee ca la bokk ba noppi man ngeen yéen tam ne kee it ca la bokk. waaw taxaw ci wetam naan ko oh, xoolal kee. waaw daan na ñëw conférence. ndeysaan Ibrahima nga ne. loolu <laughs> léegi. nag. mu ne su ngeen ko bëggee am. Mm-hmm. fa aqimu salaa góorgóorlu leen ci taxawal julli. ndeysaan. Mm-hmm. wa atu zaka góorgóorlu leen ci joxe asaka. Mm-hmm. waxtasimu billaahi te mooy ci yàlla. huwa mawlaakum moom rek moo fi seen kilifa. allah allahu akbar allahu akbar <laughs> moom yàlla waaw. wa ni'mal nasir. yéen a am ko mën a dimbalaate. Eh, ñëpp xam lii neex na li saa di bëgg a neex na li neex na. même sax <laughs> ndax mu ne wa'tasimu billaahi daal cay teg ne huwa mawlaakum. maanaam mel ne bi mu ne la ngooy daa bëgg a dalal sa xel ne la li ngay ngooy noonu la. waaw parce que boo boo fi bàyyee yàlla di ngooy ci leneen loolee nga ngooy. Mm. nee du mawlaakum. comme maay ma maay seen kilifa hmm. du ngeen mooy ci man ba ma ne dangeen maa sonal bàyyi leen ma hmm. gis nga suñu mbàkk hmm. lii mbaam xoox moo ci gën a ñemem nampal léeg ma seen mu ne laajte rek <laughs> moom ngalañ lay def joxe weenam euh. naka suuf <laughs> comme luy nampal lu am waaye day jàngale kilifa kilifa waaw mbaam xoox non <laughs> c'est xam nga ko mën a am daanaka lu mat fukki doom. waaw waaw waaw. ah ne ngalañ jaaxaan yàlla defal ko fanweeri weer wala lu ko jege. doom yëpp doom yëpp na seq benn. te dégg naa noonu la mën a noonu la mën a mën a mën a lu yàgg te du joxe ak ay moom mbaam xu. waa ji moom kay tabarkaal hmm? waaw. lu am. macha allah. demal te ñëw expert nga. <laughs>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 مثل هذه الأمداح جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرئت أو كتبت أو نسر إليها أبدا آمين يا رب العالمين وجلها مما تتقنى بها هور العين والولدان في الجنة التي وهد المتقون وجلها من أحب السكر إليك وإليه عليه الصلاة والسلام بسم الإله أنمولها بلا مناهي ولا انتهاء jërëjëf kon ci ànd bi ak Sud FM seen rajo 11h jot na ba teg 13 euh, jàpp 14 minutes fii ci sud studio Sud FM seen rajo ñu ñëw na ci troisième et dernière partie Oustaz Alioune. jërëjëf lu baax jaa al jaajëfal Aliou Diarra jaajëfal Maodo Faye xaar leen diggante 12h ak 13h incha allah ci xabaar yi français yi wolof ci gën koo yaatal. Mbacke egsi bu ñu foofu fi ñu egsi mooy wàllu auditeurs waaw wàllu auditeurs yi ñoo ci topp kon moom la ñu wéyal ginnaaw bi ñu noppee ci laaj bi nga xam ne eh, njàng meng moo ko doon laaj fële ca noppi nañ ca Oustaz Alioune yaa ngi war a dugg ci laaju Gora Thiaba waaw Oustaz Gora Thiaba euh, nuyu na la nee na nag dafay dégg ñuy wax ni waajur doj la mhm. boo dalee ci kawam toj bu dalee si kaw nga toj mhm. muy waaj ndax waajur yëpp la wala waajur dafa am exception. alhamdulilah ci laaj bu am solo bi. waajur yëpp la. waajur yëpp ay doj. doom yëpp ay nen. waajur yëpp ay doj. doom yëpp ay nen. Hmm. waaw <laughs> nen ak nen doj nag suñu bëree. Hmm. lu yàgg yàgg nenay toj. nenay toj rek. waajur yëpp nag la. waaw. Eh. do parce que ko doon wax muy wolof. Hmm. wax ji da ko mooñe sharia mhm. gis nga riddal waalidayni mhm. fi riddal lay fi riddal waalidayni mhm. boobu yàlla wax tegu ca baat ca ginnaaw waalidul kasaa wa kasaa waalid rek la wax boo ko yonent bi wax bu nga xam doo xaddaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu wa bil waalidayni leen rek moo mën a xaajale doom ak waajur mooy aqida wala mabda xare jot na kee doon yéefar ki doon julit hmm. asu ah, boobaa nag ñu jàkkaarloo ci forom waaye lu dul loolu hmm. euh, waajur nen la hmm. waajur xeer la du kon doom nen la ma sukkuran jërëjëf Mbacke ki topp mooy Moustapha mbay mu Moustapha Mbaye Oustaz Alioune ñu ngi koy jaajafal Oustaz moom joxoñ na ci wàllu araamal ak daganal léeg-léeg ci yenn melokaan nit ñoo xam ne misaal na leen nga xam ne daal day mel ne ku melut noonu ci sol col gu euh, gàtt wala nga bàyyi sa sikkim wala yu demee noonu nee na day seetlu ne daal boo julleendoo ak ñenn ci ñi mel noonu day mel ne dañ la du jox benn wàccuwaay mu bëgg nga wax ko nag lan mooy loolu. waaw lii loolu de mooy nit bu duggee ci diine sëñ Mbàkke. Mhm. dafay soxla formation. Mhm. képp ku dugg ci diine. Mhm. soo seetloo keroog ba Fatima bintul Xataab sëru Amar ba duggee ci diine mm-hmm. jëkkër ji dugg ci dañoo wuti ustaas bu leen di jàngal ca kër ga ñu ko xabaab ibnul mm-hmm. arat tey loo ko mooy boo duggee ci diine ji mm-hmm. ni nga ci mel da ngay defe ne dangaa rawe ku dul yow yaa ko raw te loolu ak waru lay jur te alayhi salaam daa wax ne isaa aradta an tadkura uyuba naas fadkur uyuba xayri uyuba nafsik balaa ngay corriger nit ñi corriger sa bopp ndax nit ku am na ci boppam lu mu war a dugg ci ruqam corriger ko kon nag comparé go ci li ngay corriger suñ la suñ la defalul formation da nga dem penc mi rek tàmbalee corriger nit ñi Oustaz dafa am benn cheikh boo xam ne bi daf deen jàngale daawa waaw muy jàngal xale yi nag daawa ci wàllu théorie. Mhm. bi muy jàngalee théorie am ca xale bu yàkkamti. Mhm. dem di def pratique. Mhm. maanaam noppeeguñ ci cours yi théorie <laughs> ba dem ci pratique moom mu dem di pratique. dem di pratique. waaw. mu ñëw ci jumaa ji imaam ji xutba rek mu weddi ko. ah. weddi imaam daal di wax lu salfaañoo waa jàkka ji jàpp ko dóor koy dàll ba màndi <laughs> bi mu ñëwee ci cheikh bi ko doon jàngal. ne ko tey de jumaa ji mu doon jullee. jumaa yéefar la. mu ne ko yow luy lool jumaa yéefar mun taam mu ko ah ndax nangama ki nangama ki nangam daal koy nettali xutba ba xutba ba gaa xëy na am na ñol-ñol waaye taxul nag nga ne jumaa ji jumaa yéefar la. <laughs> loolu mënut a nekk. bëgg leen takk ñoom ñëpp. cheikh bi ne ko da yàkkamti ku ñuy jàngal daawa. Mm. nga nekk ci théorie. Mm. su mokkul bul pratique ndax euh, hadis ba def ne man raa amin ko mun karan daf ko def ay ay ci pàcc pàcc. wallaay am déet. wallaay fal yuxayyirhu bi yadihi mm-hmm. fa in lam yastati. fa bi lisaanihi fa bi lisaanihi fa min yastati. fa bi xalbi mbàkke boo ci burlee benn étape rek. da nga yàq pinc waaye doo defar. dëgg la ki war a waxtaan bu lay jëf. <laughs> loolu nag bu amee ay xale ci pénc mi ñoo xam ne foofu la ñu toll mën nañoo wax nit yëfër nga mm-hmm. mën nañ koo weddi mm-hmm. mën nañ lu ne mën nañ ko ko def te suñ demoon ba toog ba waxtaan kooku nga naan yéefar la ak nangam ki nangam min waxtaanee dafa lay raw. loolu nag jaar naa moytu penc mi lu xew na ñu ne Ibaadu Rahmaan. wala ñu ne ibaadu yi. waaw ndeysaan. penc mi lu xew rek ñu ne ibaadu yi. dëgg la de. waaw xam naa baat boobu de ñoom Abdoulaye Abdou ñoom. docteur Abdoulaye Lam ñoo ñàkk sens coté boobu peut-être. Mhm. <laughs> yàlla yàlla bu sàmm leen. waaye eh, dafa am ci penc mi rek ñoo xam ne ci yu mel noonu duñ ci am fu ñuy dellu marja wala marja marja boo xam ne bi dañ cay dellu bu ñu bëggee def nangam wala ko xam ne ki xaamilu saan lay doon bay wax seenu tur su ko defee dañuy defe ne rek kenn ku man ra aaja rek dañu dindi baatu minkum man raa mun karan rek la jëfandikoo eh. bàyyi man raa bàyyi dindi minkum ja te man raa dafa wax minkum te lu jiitu la alxuraan ma ne wal takkum minkum minkum jooju boo ci bokkut boo isaale mun kar rek da yàq moo ëpp li ngay defar lu am solo la te nit ay démarche képp mën naa defarum pénc balaa wax ndax wax liñ war a mujj def laaj ko yonente bi daawa saamita ba mu njëkk def ak daawa naatixa ba ak al ijhaaru bi daawa waaw fas daa bi ma tuumar door jot wallaahi la ko jiitu woon saa man nag léeg-léeg mbàkke eh, bu bu saa di jël référence ci saxaaba yi noonu waaw sama xel day dem ci formation soldat yi mm-hmm. Mm-hmm. sapeur pompier police. Mhm. Euh, takk der rek di manière mhm. générale. Mhm. même suñu mbokki yeneen ñi chrétiens yi. waaw du n'importe comment rek ku jóg rek mën a wax ci seen tur. dëgg la dëgg la déedéet. walaay ndeysaan déedéet déedéet. suñu ci suñu diine rek ngay gis. mel na Alioune Mbaye bëgg wax ci turu njiit nga xam ne léeg nit jël engagement ne ñun ñooy xeex nangam te doo xam sax ku la ko fal wala yow euh, maanaam ci wan tur nga taxawee ñan ñoo la mandaté ah, ñan ñoo la ne yaa yor kàddu jullit ñi ci loolu loolooy affaire bi nag am sa benn moment rek ni man maa yor nangam ñun ñoo def nangam mhm. daal di a bàyyi xel lu jar a bàyyi xel lañ ci penc mi waxtaane ko waaw waxtaan ci biir mhm. waxtaan póotum biir mhm. ba xam ne ñëpp a bëgg a defar yàlla xam ne ne gone yooyu fi ne bëgg a dëgg la Mm-hmm. mais nag fi iblis bi mu wax ne dafa dafay gàllankoor yoon mm-hmm. la aqudan lahum siraatakal xam nga siraatakal mustaqim la wax mm-hmm. kon kii góorgóorlu la soxla boole la say bokk wala mu yàq sam pénc wala mu wax la lu nu wax wala mu def loola ko wala mu fenq la ci kilifa dëgg la nga wax ko loo wër te wax. Mm-hmm. ah wala wala wala dëgg la oustaz vraiment c'est pour ça xoolal même suñu mbokk yi euh, yi yëngu ci wàllu politique. Mm. nga dégg porte parole du gouvernement. Mm. wala nga dégg porte parole du jour. ah, ah nga xamante ne dañuy am ay daje par par. nga xam ne waxi kooka la ñuy jàpp. Ah, <laughs> waxi kooka la ñuy mandaté tey oustaz Alioune Sall. tey wax tey ci rapport bi. tey soo ñëwee ci ci barab. Mm-hmm. ba fa soxlaa dara. Mm-hmm. dafa am ko bu ngeen waxtaanee yaag moom rek. nga gedd nga gedd dara jooja. dëgg la waqtul buyuta. min abwaabiha min abwaabiha. wallaay a hmm. est-ce que. waaw lu am solo nga wax. lool lu am solo nga wax. lool ndax fi mu ne li nga doon wax léegi tam di ak tooñ. fi mu ne léeg ci réew mi ci penc mi ñu wax dara rek ñu ne ah ci de ibaadu yi la. wala ibaadu nangam te xam ne oustaz ñàkk information léeg-léeg mu waral loolu ndax jamaa boobu nga tudd muy jamaatu ibaadu rahman man mm-hmm. ngaa wax ne ci ñi gën a euh, maanaam am tolérance ci lañ bokk ci mu man nga ko waxe maanaam tudd noonu ci association islamique yi parce que dem maa ngi si daan Cheikh Awa Balla Gueye mm-hmm. bi mu waxee ba agsi ci noonu la leen cité mm-hmm. ne la nag jamaatu ibaadu rahman bañ sosoo ca ñoom gaañu njëkk ñi oustaz Alioune Guèye ñoom mm-hmm. oustaz Sidi Xaali ñoom mm-hmm. ah mm-hmm. oustaz euh, Malick Ndiaye ñoom ba ba ba ngay ñëw fii dañuy congrès indi ay orientation teg ay rëdd formé gaay ànd ak ñoom dox ndànk-ndànk xam nga li may dëggal li nga wax nii. dëgg la de comme daa bari ay jamaa de moom. ci bisu bisu bi passé. waaw ndeysaan ak Abdoulaye mhm. Lam. docteur Abdoulaye Lam. docteur Abdoulaye Lam. waaw gis ngi wax teraanga jëlee Cheikh Sidi Makhtar doon. Ah, waaw bi ñu ko tuddee woon Louga. di dégg ak la mu ca def ci xeeti teraanga ak la mu ca taxaw. dëgg la kooku bu noonu nga fa wala dara nga fa kon lu demee noonu. déedéet léegi kon nag takk fii nag. Mhm. ak yooyu. Euh, ak diw bokkaale kat ak mhm. diw shirk la ak diw sawar la jëm ñoom seen yooyu nan ko teg ci suuf. du mbiri ko xàmmee de. waaw bu ñu demee ba yemal xiyam mhm. ku yàlla na sawar a nga jëm. Mhm. nga xam ne fa nga jëm. comme ni aljanna nga jëm nga xam fa nga jëm. te nag sawar ak aljanna. Mhm. suñ bàkke ki jàpp ne damaa def nangam fa laay dem commerçant nga. <laughs> ndeysaan luy commerçant. te commerçant mooy ku jënd marchandise. cinquante franc. jaay ko vingt cinq. <laughs> nga ne yàlla man julli naa. wala def naa nangam. Hmm. kon nag man aljana laa jëm. Hmm. oustaz Alioune Mbaye xàmp na mango moom sawar la jëm. yow commerçant nga. yàlla doxee wallaahi wallaahi oustaz boo demee ci xikam sax noonu la ko ibnu Ataa Ilaay indee. waaw waaw al ihtimaadu fil amal. waaw mu ne nax su rajaay inda wujdaani salal waaw sukkandiku ci ay jëf jàpp na yàlla dalay lay fay bu ngeen bu yàlla calculé yow nga perte commerçant nga ndax boo ko ne julli gi mun la suuf si nga taxawoon di julli ku ko moom <laughs> wér gi nag ku ko jox noyyi yi nag bu ngeen calculer dëgg <laughs> boo mooy tuut kenn amul loo jënd loolu yàlla wallaay wallaay wallaay ci laaj moom Moustapha Mbaye ndeysaan sëriñ bi wax de oustaz ne woon na hmm. ku jàngul lu du téeméeri téere donc waroo <laughs> waroo weddi jéggal téeméeri téere xam ne téeméeri téere donc nga jàng waroo weddi alors loolu day eh, sëñ wa sukkuran euh, euh, dese na ko dese ko hmm. mu ni waree fulan Moustapha Mbaye waaw xam naa diggante ñaari way dencante oustaz lay wax. léeg-léeg seeni i wareef euh, ñoom ñaar. waaw ku góor ki daal moom. nee na ku jigéen kaa ngi def li ko war. Mhm. waaye ku góor na mhm. wa moo ko war. wa na. Mhm. ki. sa. su. juróom wax waaw. wa. mooy nay joxe ay. nay joxe ay. waxtaan ak soxna si ci lal bi. waxtaan wuy tax a am doom. ak yi ci aju yëpp nag. waaw na mooy nay joxe dépense mhm. buñ mën a añ mhm. reer ca ndékki ca mhm. bu ca weccee desee moo gën <laughs> na ki mooy koddaay kiswa kiswa na sa jabar am lu mu sol na am lu muy daañoo na am lu muy yendoo na am lu muy waaji mooy kiswa kiswa su mooy sukk naa na am dëkkuwaay bu moom Mhm. mbaa boo moom mbaa boo luyee te mbaax mhm. te ngay fay waaw mhm. so mooy can gi dañuy dem ci jàkk jaana ko naa la may cent mille yóbbu nga ci jàkk ji dix mil li des dee ci dugal dara baa muy mat te juróom la jëkkër ameel jabaram te di ko wutal seede ba sukkuran ci yu am solo yooyu masha Allah jërëjëf jërëjëf waa na ki saa su saa su waaw xam naa sama sama góor gële ca cene ba Cheikh Ahmed ma Seck. ndeysaan bég na. <laughs> waaye góor góor. waaye yàlla na ko fi yàlla ah, yàggal waaye mooy njàngam cosaan mi. kenn mësu koo gis. moom daal boo tënkee baat. Hmm. cheet tet tet tet. ndeysaan. dem ma léeg-léeg mu ne ma baat sàngam xam nga ñaatu la ñëw ma ne ko jël mu ne ma nàngam yoon lii mooy tënk ba. <laughs> ndeysaan. wallaay ndeysaan maa ngi bég bég bég dee rek. <laughs> jaaxal na ma ndax yi dama laa bëgg ma ne ko xam naa. rek. waaw. ndeysaan. parce que kañ bàyyi ah bu gaa yi bàyyi wax kii rahmatun uh-huh. yudxiloo laa fi qulubi ibaadihi wa innama yarhamu llahu ruhama loolu la yontu baxoon nee na mooy may nit xol bu woyof mu gaaw a xëm mu ne ku mu ko defal yaakaaral mu dugal la ci yërmande ja ndax yàlla ndeysaan macha allah. su ma ndeysaan. inna allah maana. yàlla moo ci topp ah. ma nga ca ñang ba mbocc yat ma nee na oustaz dafa gis ne feet yu bari yi ak yu demee noonu yi nan la ko lislaam gisee mm, waaw xam nga sunum penc mm. Mbàkke mm. dafa nekk pencum layik moo tax feet yi bari li ci lislaam am ñaar la ci ñaar la ci waaw bu ko ëppee benn la koy ëppee. waaye soo ko xasee génn nag. weer wu dugg am nag feet. loolu nag léeg-léeg cim réew. day tax réew ma du dem. lislaam lam xam mooy isaa nuuji li salaati min yawmil jumaa fasaw fasaw ji mooy wasa wasarul bay'a mooy bàyyi li nga nekkoon li muy teg kon moom yaa ngi doon liggéey ci àjjuma ji am déet mbàkke fa isaa xujud salaatu fantashiru dellul ci liggéey ba kon ajjuma lim la ci may mooy diggante ju liggéey ak fi ngay mm-hmm. laa nag yeneen bis yi mm-hmm. wa shukran ci laaj ba am solo bi incha allah am na solo tegtal na ci beneen laaj Oustaz Alioune nee na ñenn ci correspondant yi léeg maanaam ñiy lëkkale rajo yi te ne ci région yi gox goxaan yi nee am na ci kooku daal buy delloo antenne bi day mel ne da koy woy mm-hmm. waaw tampon loolu la ñu tuddee tampon tampon waaw signature am signature am la <laughs> dafa am solo ci communication. Hmm. Hmm. Hmm. sunu mbokk mi daan Aliou Diarra. <laughs> neex la ko daan wax. ah Louga. sunu mbekk mi naan tii waawan <laughs> am déet. waaw kii naan Ngor Sarr. Fatick Sud FM. Mamadou Makhtar ak koy fëggee ba mu jeexal rek. bëgg nañ mu neex. dëgg bëgg nañ tampon bi jaxat yoon. bëgg nañ bu subaa mu am lu mu kii. ay tampon la rek yoo xam ne macha allah wayu ñu dañuy dañuy jeexal seen ñu tudd waaw. wa shukran ci laaj maam sëñ Yadma Mbodj waa Njàng ba ak waa Louga ak Màkk Bira gi yëpp sama leen ci topp mooy Xaadim Jaw jërëjëf Yadma Mbodj oustaz Xaadim Jaw day ziar yi mu indi nuyoo mu ni dafa dégg ñu ni alquran dañ ko dajale ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wa salaam sallallahu comme ko dajale ginnaaw yonent bi ñu ni njàng njàng sootu Yaasin ok surtout kax fi euh, kon nan nan la ko yónni salaam mën a digalee ak comme ginnaaw dañu ko digal day la ginnaaw. jërëjëf. Hmm. alxuraan fi yàlla nekk da dajale ak dajale. Hmm. inna alayna jam'ahu wa qur'ana hmm. fa ida qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna <laughs> tax jàngalekat yi jukk yu pédagogue yu foofu la ñuy jaar ba mën a jàngale waaye daal genn dajale genn gi dañ koo ko mooy xifsu fi sudur ay ponkal mokkal kook yooyu geneen dajale gi mooy bind gi ñu ko bind bind gi ñu ko bind waaw ndax dañoo dem ci xare ay kaang dee ca ku ñu wax Abubakar Siddiq mi yàlla defoon ñu tànn ko mu nekk xalifa li li Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah mm-hmm. politiquement socialement mm. économiquement mm. mu boo ko dong la tànn la la la la la mm. doonnut mm-hmm. moo ne xeex yi bu ñaaree alxuraan dem mm-hmm. te bu demee ñu ñëw suñu ginnaaw ñoo leen ameel àq dëgg kon nañ ko dajale mm-hmm. Omar na ko kenn du ko fi dajale ah opposé wu loolu kenn du ko def eh, mu ne ko àggal suuf mu àggal suuf moo xaat ko wax ji ne ko kon nañ bàyyi waaye mm-hmm. demal nga def sa listixaara mm-hmm. Omar julli ñaar rakk yàlla su fekkee dajal alxuraan ji moo gën ci noonu yàlla na jàppandi mm-hmm. yàlla wan ko lu leer daa julli fajar rek ñëw ne ko nan ko dajale li nga wax mooy dëgg mun na jërëjëf ci dajale gi ñu woo Seydou ne ko yaay bi daj mu ne ko secrétaire bu lan <laughs> mu dajal alxuraan mu xëm <laughs> ay mbokk mu wuti galaas càpp càppal delloo ci <laughs> ne ko yow yaa ko yaa nekk secrétaire bi mu ne ko maa ngi lay waatu ci yàlla yenu montagne mais yët la ko moo ma gën a yombal li ma sant ndeysaan yenu montagne mais indi la ko moo ma gën a woyofal li ma sant mu ne ko fii xayri insha allah mhm. mu ne kon nañ ko dajale dajale googu nag mooy woo kaang yi mhm. ñu indi liñ mokkal mhm. ñu tari ko ñu wut fuñ ko bind seen jaan wàcc jamonoy Ousmane mu yëg ne dajale nañu alxuraan. mais am na ju nekk fee am na ju nekk fële. te bu ñëwee di jàngalee ñii wéy jàngal yi léegi tey ñaari julli taxaw dóorante kurpañ kon nag nañ jëli bee ak bii. woo benn commission ñu boole yëf yooyu ba mu nekk benn téere bu ñu ko muulee ba noppi nag delloo kee biñ mool indi kii biñ mool mu nekk benn téere ci àdduna si. Hmm. ñu ne ko loolu tam fii xayra. Hmm. Hmm. nga daal di koy dajalewaat loolu nga tuddee eh, dajale Qur'an. léegi nag bi mu naan nañ jàng suratul Kahfi boobu fekk na suratul Kahfi mat na. Hmm. bu bi jógee alxuraan jëpp mat na. saar yëpp mat na. Hmm. li li amutoon mooy tegale saar yi. na Faatiha jiitu na ca Baqara tege nangam ak nangam. loolu nag saxaaba yi la ko yàlla may subhaanahu wa taala. loolu mooy dajale gi. mooy dajale gi. am na solo ndax ay vago. Mbàkke ñaar yëpp bu ñu amee ñaari ñaari boucle yu cercle nii. bu taqaloo waaye boo ko bi départ bàyyi fëkkale. kon kii kii day lonklu kii day def aw mpax mu lonk ko ci ñu mën a dem mhm. loolu nag saaba ya ko def mhm. radiyallahu taala anhum yàlla nu yàlla fayal nu leen amiin yaa rabbil amiin wa shukran ci laaj bi am solo bi tabaarkalla tabaarkalla jërëjëf Xaadim Jaw laaj bi am na solo trop Cheikh Abdou Ndiou de moom Mbacké waaw Italie la nekk oustaz suñu mbokk moom ay siyaar la indi ak ay ñaan rafetlu jotaay a euh, dawal foofa nag hmm. mu ne ci yoo xam ne moo koy tënk ba du dugg waaye xelam a ngeeg xalaatam ci noonu delloo nañ ko loolu tabarakallahu ñu ngi koy ñaanal tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara oustaz ani na laaj mooy Serigne Mbaye moom daa dem ca suratu Yaasin xam hmm. naa fa mu dem du sori euh, aaya <laughs> aaya yooyu hmm. Euh, tolloo fa suñu borom di wax naan alam ilaykum yaa bani aadama allaa taabudu seytaan mhm. innahu lakum aduwun mubin mhm. moom la bëgg nga tekkil kooku oustaz waaw jërëjëf ci laajam bam solo boobu mhm. suñ mbàkkee kara bi nit ñi demee yomal xiyaam ndeysaan iblis daf doon def meeting am ba meeting de clôture nga xam ne suba la élection yi suba la <laughs> dégg nga iblis daal di jël kàddu mbooloo ma ko dar ñëpp dar ko ànd ak moom sawar la muy def ca gémmiñ nga di ko xëcc muy génn saxar mu def ko ca mbaxanam muy sol te mu nekk mbaxanam gone mu sol ko waaw waaw tey nga di jàkkaarloog mbooloo ma ñe mhm. leen inna laa wa'adakum wa'dal haqq wallaay ndeysaan li leen indi fii du man mii yàlla waadakum waadal xaq mhm. wa waadtukum fa axlaftukum mhm. ba leen yàlla wooyee barab sàngam man maa leen woo barab sàngam ndax yàlla moo leen ci julli yaag woor yaag yu baaxee ma woo leen ci nagar wa leeg taasu hmm. ngeen wuy si ma ngeen wuy si ma hmm. dem ba ne leen falaa mu ni waloo ma anfusakum waaw te sunu ne ne ko may ma hmm. meeting bi moom comme temps d'antenne la. ndeysaan jël nangu antenne bi caw wax ji suñuy wax. suñuy wax suñu bopp. daan ne. Hmm. alam ahad ilaykum yaa bani adama ala taabudu shaytaan. ndeysaan ah, ndeysaan. Hmm? Hmm. wa ana abuduni. hasa siratu mustaqim. wa laqad adala minkum jibilan kathira. afalam takunu taaxiloon daa leen di jox kàddu gi. waxoon takunu taaxiloon. nu <laughs> jël kàddu ga daan kunna nasma. aw mm. naaqil mm. maa kunna fi asaabi sair daal delloo suñu borom kàddu ga la ilaha illallah <laughs> mu ne kon haasi jahannam amul allati kuntum tuadun ndeysaan ndeysaan lawxal yawma bima kuntum takfurun ndeysaan yàlla buñ ca bokk. amiin mitingu bi iblis moom. Hmm. yàlla buñ ko fekk. yàlla bu ko kun hmm. kenn ku ne xam fekk. amiin monsieur Koran ci laajam maam salaam. amiin ay ji de oustaz li muy yéeme yéeme ñaari baat yi daal. Hmm. te gaa tontu ko mooy law kun naa nas maw aw naa xil. ndeysaan. ndekete wallahi ndekete euh, ñàkk a dégg ñàkk a dégg ndigal manees na ko waxe noonu waaw ak di foyee sam xel euh, mooy tax nit ki dugg ci musiba ëllëg dëgg la <laughs> waaw Mbàkke mu dëgg de. waaw <laughs> li charia am ci loo mën a yee nit. Hmm. bu nit yeewut. Hmm. suba wallaay. li li lislaam am ci luy yee nit. Hmm. nga xam ne léppam yee nit laa ak defar nit mu nit moo tax ñu law kunnaa nasma'u aw na'qilu waaw. bu fekkoon li gaa yi doon wax déggoon nañ ko. wala ñu jëfandikoo suñu xel. kon maa naa fi asaabi sa'iir fii duñ fi ñëw. wallaahi ndax déggoon nañ lu tax a mucc. waaw. waaw suñu xel lañ fooyee ba jëfewuñ ko rek jeex na <laughs> topp di gunnaan daataka ndaataata lax jërëjëf sëñ Mbaye ci laaj am solo boobu jërëjëf sëriñ mm, Mbaye Oustaz Alioune ki ci topp mooy Moussa Ciss Morona Oustaz Moussa Ciss man euh, kii non dese na ko laaj acca dese na ko laaj mooy lan ndax doom sañ la may wàllam ci ci miraas waaw ñu war a miraas waaye jur doom ne man sama wàll mayee naa ko waaw lañ bëggoon daal mooy bu ñu toogee bay miraas ba nga xam ne ñu ngi génne cër yi mu mm-hmm. jox ku nëb cëram góor ñaar jigéen benn wala nañ ko joxee hmm. soo jotee sa wàll nag nga maye ko ndax sa wàll woowu duñ ko miirax dañ koy séddoo hmm. li nga maye li nga maye hmm. góor ak jigéen kenn du ci ëppale sa morom ah, alal duñ maye la léegi boo ko mayee ci biir miiraas mi nag ci miiraas a gunu danañ jox góor ñaar jigéen benn ci biir am ku ëppale ci sa wàll bi nga mayee bu seen papa faatoo nga am ca 40 million bàyyil ba jot sa 40 million may leen ko nag ci ginnaaw miraas bi ñu séddoo ko ñu yem ca kepp kenn ku ne am ci wàllu góor ak jigéen mm-hmm. looloo tax noonu leen ko bëggee teyit it dana yombal miraas mi waaw daana yombal bari na ko taxaw ne man may naa saa wàll daan taxaw ne bi nga koy mayee te miraas a guñ da lëjal ndax day ne ci biir yow li nga moom comme di yow kenn du ko miraas kon bi ngay mayee moom da war a jël ba moom door a mayee nag ñu séddoo loolooy a ah, am na solo am solo lool gars yi dañ ciy incarné ay affaire la ay doylu doylu lu yooyu nag man moom vraiment lii ma ci soxla miraas leen jël leen may naa sama wàll ay ca imaam li ku ci topp jërëjëf sa ki parce que Moussa de ginnaaw siyaar rek xalifa euh, baag waa Morala gi mu jox nuyu si ñëpp. moom laaj bi mu indi moo fële ci Baqara. bismillahi rahmaani rahim yaa ayyuhal lazina aamanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yaati yawm laa bay'un wala xulwatun wala shafaa lay ndeysaan wal kaafiruuna humu zaalimuun lay ndeysaan sunu borom nee na yéen ñi ma gëm te xam ne bis dana ñëw ngeen jóge fi ñeme leen dépense Hmm? deme leen dépense ci li ngeen am ku am xam-xam na ñeme joxe ca hmm. boroom am am na ñeme joxe ca hmm. ndax ñaar yooyu doxe penc mooy doxal penc mi lu ko mooy bis ngi ñëw nga naan ma yàlla law laa axatni ilaa ajalin xaribin damaa bëgg a bàyyi ba après demee nga door maa jël si yàlla mu ne gaaw leen kon balaa bis boobu di ñëw ba nga xam ne duutoo mën a duutoo mën a joxe dara duutoo mën a signé dara nga ne nag léegi nañ ma may ma def ko suñu borom ne def leen ko balaa ba balaa loolu di ñëw mm-hmm. anfiqu min ma saxnaakum min qabli an yaati ahadakum mawt min qabli an yaati yawmun laa bay'un fiihi wala wala safa wal kaafiruuna humu zaalimuun mm-hmm. waaw mm-hmm. tabaarkalla ayatul kursi daal tàmbali ndeysaan wa shukran ci laaja maam sala bi jërëjëf jërëjëf ci tontu yu am solo sëñ Mbacke ginnaaw yaa ginnaaw euh, mbokk moomu góor a Baye Fall mooy tegu. Kër Sega lay wootee Oustaz di suñu dëkkandoo fële ci njaareem ñu ngi koy nuyu bu baax a baax tey bëgg ci duggam bi. Mm-hmm. nee daal ndax dafa bëgg nga wax ko ñaanu kuy jàng koo xam ne bëgg am xelam neex ndax mënees na koo defal ak ñaan. waaw bu dee kuy jàng alxuraan de mm-hmm. neex naa defalu kiis. Mm-hmm. bu dee koo xam ne alxuraan lay jàng. dañuy jël ci alxuraan bindal ko ci kiis yomb na. bu dee kuy jàng tubaab nag. dañuy bind rek. <laughs> du yomb. xam nga ki jàngal tubaab mënoon ko bi la case de Birama. la case de Birama jox ko waaw. Hmm. wala le pantalon de hmm. <laughs> ko texte boobu jox ko. <laughs> ne ko sangoo ko. waaw mais daal bu dee ku jàngal xamam. Hmm. gars yi daal nañ ko bindal ay aaya. yu bassaroonahum ak la ko wër. walla alam nasaraak ya àndal. ah. wala xam naa Suleymaan ak yooyu. ak fa dakkir inmanta di nu ko xaj fa sakk inmanta dikra mm-hmm. ak ak ak ak bu fekkee alxuraan lay jàng mbaa araab ak ñoom seen yooyu mm-hmm. waaye bu dee jàng tubaab daal ca dëgg-dëgg mm-hmm. danañ bind de waaye neexuta bindal nag wa am na solo oustaz ci laajam boo am solo boobu loolu moo nekkoon laaju góor a Baye Fall oustaz Alioune Mbaye Mouhamed Medor moo ci topp jërëjëfal Baye góor a Baye Fall Kër Seega di woote Mbàkke Bool wala boog Jurbel njaareem njaareem mu ngokk Euh, Mouhamadou Médor mm-hmm. oustaz ginnaaw siyaar yi indi moom ak yooyu mu ni lëkkum diina ko wala diin daal la bëggoon nga firil ko ko ak fan lañ ko war a firee ndax léeg-léeg jël ko ci position boo xam jàpp na xëy na peut-être du place am yàlla daal ko wàcc woon ci alayhi salaam mm-hmm. mu wéetoon ci penc ma waa penc ma déclaré ko guerre sunu borom ne ko defal déclaration nee leen xul mm-hmm. yaayol kaafiruuna yéen ñu weddi na yàllaa ma yónni laa abud ma taabudun du ma xëy ci li ngeen di xëy du ma programme naa programme. ba mu jeexal nag mooy ne lakum diinukum waliya diin dem leen ma dem. dem leen ma dem ju nekk nag loolu lañ koy tekkee. Mm-hmm. lakum diinukum waliya diin. mooy sukkuraan ci laaj ba am solo bi. <laughs> jërëjëf Modou Mbène mu nekk ci wàllu julli itam dafa laaj ni nit ñi léeg-léeg bu ñu fekk dañuy julli su ay jumaa yooyu eh, dañuy dañuy dàkk rek fu ñu nekk julli nag du ñu xool ndax fi set na du ñu xool ndax laab na. moom daal. jumaa daal kuy dem. boo demee ba fenn rek nga toog fa. Hmm. bu sàppi si ñëwee am nga julli def nga luñ sib bu sàppi si ak siwut amoo julli. wa <laughs> shukran ah, amoo jullit def nga lu ñu sib boo dee gën a bon jërëjëf sëñ Mbacke ginnaaw moom lu mel door taalibe sëñ Mbacke sëll bi maa ngi koy nuyu baax a baax di ko siyaare di bég ci moom nee na moom oustaz dafa bëgg nga tekkil ko euh, wala ina anzalnaahu dafa gént oustaz Alioune euh, di ko jàng léeg-léeg mu gént itam di ko jàngalee loolu la bëggoon nga ñëwal ko ci mhm. ina anzalnaahu dafa am lu muy dox dafa am lu muy dox mhm. li muy dox mooy kuñ koy jàngal dañ la wax ne bul yàkkamti mhm. bul yàkkamti bul yàkkamti lii ñëw a ngi ñëw. maanaam ku gént jaa ngi naan si sanaaw. Hmm. ñu ngi lay wax ne la bul yàkkamti lii ñëw a ngi ñëw lii ñëw ngi ñëw. mi ngi ñëw nag xataa matale fajiri. Hmm. ginnaaw fajar la jëm nag. waaw bul door tëdd bul yàkkamti bul yàkkamti. bul yàkkamti xaar ko rek. waaw yàq bu xaar ko rek. ndeysaan kon sama taalibe bul yàkkamti. bul yàkkamti <laughs> nañ ko xaar dina baax. gént gi mu gént nag euh, dem seeti sëriñ. Hmm. ku gént dem seetib sëriñ ba chef de l'état wala ñoom seen yooyu ah, kooku mooy batiti batiti mooy gént ah, mooy ah. kat bu mag bi ayca ah moom daa mel ni mës <laughs> a yow day nelaw di gént rek wax nga dëgg batiti la waaw batiti batiti mu gént a bari oustaz batiti moo doon gént loolu waaw donc ki gént dem seetib sëriñ waaw mi ngi yokk mhm. ku gént ab sëriñ seet si la mhm. yaa ngi yàqule hmm? ah boo géntee si ab sëriñ seet si la hmm. wala chef de l'état seet si la hmm. wala kuñ ku ñu bari xam seet si la innal muluuka koy firi. waaw isaa daxalu xaryatan afsaduha wa jaalu aizzata ahliha azilla azilla wa kadhalika yafalun na <laughs> kon naa di jóg na taxaw xanaa da ngaa gént sëriñ seet si la doo ko defati de da ngaa bëggub siyaare ji <laughs> del dem <laughs> ayca del dem sëriñ si moom toog leen rek ñëw nag leen gaaw ayca ci mooy kan ayca euh, Oustaz Ahmed Tine mooy coach douane. Hmm. nekk la bokk. staff mu indi nag eh, dafa naa ci lay doon. incha allah. usage sunu borom mooy wax ne. Hmm. tremblement ngi ñëw. Hmm. de terre. boo xam ne suuf dana ko def. génne li woon ci biiram lépp. suuf di xuloog moom. naan ko pourquoi ko yow tax génne sama borom moo ne ma te du xaar nga sol yëre. bu ànd rabbak aw xaalaha. aw xaalaha. faa ko digle. non oh, naa <laughs> dafa garaaw yàgg naa la ko wax. dafa garaaw mais doo ko comprendre. <laughs> maa la xaaji loolay tekki oustaz. waaw. maa ngi nit danaan lu xew fii. lu tax ma dekki ndekete lu tax su lu ma yëre lay <laughs> waaw lu tax ngi ay wajj waaw waaw. Hmm, maa ngi sa waaj yi. Hmm. tawakkal. <laughs> merci. jërëjëf ci laaj bu kon ñu ñëwale ko foofu. laa ilaaha maa maalaha. bindal ma loolu. <laughs> <laughs> seet ci alxuraan. macha allah ah, bi ci teg mu ne mooy. takaasur waaw takaasur. Hmm. takaasur sunu borom nee na. alhaakumu takaasur. xataa sutum maxaabir. nee na li ñun sunu sunu jëf mooy. maa la ëppale. rek. maa la ëpp léegi ci àdduna gii la waaye maa la ëpp yow du ngeen ci du ngeen ci jëm maa la ëpp mbaax nangam déedéet xataa sunu maxaabir ba ñu sigil ndigaale kalla baax na rek baax na rek ay eh, bu ko waxee yi ma tax xam sawfa taalamuuna da dangeen mas a xam ne njëkkalante fii ci àdduna du tus njëkk leen fële ay ndeysaan jalla jalaaluhu mu dee la summa kalla sawfa law taalamuuna ilmal yaqiin bu ngeen amoon xam-xamu yaqin loolu day dakk ku am xam-xamu yaqin da nga xam ne lu mu njëkkalante fii Oustaz Alioune ku sukkuraat bàyyi fi sa àll. maa wax lii. dëgg la ba faata wax noppi. oto bi nga naan war du la yóbbu armeel ya. oto bu ñuul boobu moo la yóbbu. xam nga kor bi yàlla xam nga moo yóbbu waa ji ak ah, ma koo moom maa déet dafa am oto bu ñuul ak bu xonq. waaw seetlu woo leen. waaw bu xonq bi mooy ban sax. mooy mu sappoor yi. sappoor ndeysaan. ndeysaan. doxul jàmm tudd. waaw sappoor ñoom de fañ jëm boo gisee ñu samp seenu xir rek xamal ne ñu jaaxle la ñuy seet. jeex na am na ci bu weex. waaw bu weex. waaw mooy jël si moom yóbbu. ambulance ah, mooy mooy ambulance. waaw gis nga ñetti oto yooyu. waaw faxas këpp. ambulance moom jëmul ca sëg yo waaye nag. waaye ah. moom kay. moom kay urgent la. ndeysaan waaye bu ñuul bi daa oustaz. Mm. waaw bu ñuul bi dana mucc. Mm-hmm. faxas këpp rek. ndeysaan ndeysaan tey. ayca bisimilah. <laughs> ki ci topp mooy kan oustaz. mooy Cheikhouna Sylla. Cheikhouna Sylla Kolobaan euh, waaw sama doomi baay jooju moom aaya alxuraan la joxoon oustaz. Euh, defe naa suuratul Hadiid la waxoon. aaya aaya douze mm-hmm. aaya ci saar woowu mooy tolloog fi suñu borom di waxee naan yawma taral muminina wal muminaati yas'a nuuruhum bayna aydihim wa bi aymaanihim busraakumul yawma jannaatun tajri min tahtiha al anhaaru xaalidina fiiha xam nga saar boobu mooy alxadid mooy tekki feer feer feer feer yi rek ñoom seen yàlla tudd na feer bu sekk seen bu sekk wax <laughs> <laughs> waaw <laughs> na fee raw saar waaw yàlla tàmbali daal di bàkku ndeysaan jalla jalaalu sabax lay fil ardi yëpp mm-hmm. a ma faragu waaw man ko wedde xool leen sama waati xool leen al ard bi mu ñëw ba ci aay bi nag mm-hmm. mu ne bési ngi ñëw mm-hmm. taral mu'miniina wal mu'minaat nga gis mbooloo mu gëm yàlla teew góor mbooloo mu gëm yàlla tew jigéen ña ngay dox di dem. ndeysaan yes a. Ah. yes a ah. nuuruhum bayna aydihim bi ay wallaay ndeysaan. seen kanam leer nañ. ndeysaan seen côté droite leer nañ. ndeysaan góos ba yàlla xam. wallaay wallaay. est-ce que. malaaka yor toppale naan busraakumul yow. yow. Oh. Hmm. wi wi wiiw les les les mu'minoon et mu'minaat. Eh fi ngeen jëm nii. jannaatin tajri min tahtiha anhaaru mhm. hmm. xaalidina fiha mhm. yéen dootu leen màgg dootu leen màggat dootu leen génn hmm. dootu leen dee dootu leen feebar zaalikal fawzul kabiir ah mhm. fawsul azim beneen groupe ba nag munaafiqoon ak munaafiqaat ya naan leen unzuruna naqtabis min nuurikum gestu leen nu waaw bàyyi leen ñu xel bu ngeen nu gestoo rek mhm. seen lamp bu leer bi leeral nu nu dem wallaay ndeysaan xiilaar malaaka ne irjuu mhm. waraakum faltamisu nuura mhm. dellu leen fa ngeen jóge woon ngeen wuti fa leer ndeysaan fii Sénégal amu fii mm. te it abonné wu leen woon mm-hmm. ku abonné wu doo am leer allahu akbar dem leen wuti dem leen abonné ji mm-hmm. fa duriba baynahum bis te abonnement wees na ah, <laughs> wees na kay ñaawalaate la sal Ibrahima Xalil loolu nee na mm-hmm. bu fekkoon ku jën téléphone mën a woote mu neex waaye à part daan yëng ci kër gi buñ ko abonné wut demal nga composé ah, abonné de ci ndox <laughs> agone def ci crédit door ma mën a woote. yàlla ah, ndeysaan jërëjëf. ndeysaan gaaw gaaw. ayca beneen bi mu ci teg oustaz euh, mooy mm, euh, teg na ci beneen aaya seexu na mooy ca xisbullah jaag yooyu. Mm-hmm. Mm, euh, yow ma yaqulu mooy li mu doon wax léegi yow ma yaqulu munaafiqiina wal munaafiqaati lillaziina aamanu dafa wàcc suuf rek ak fële ca kaw. Mm-hmm. teg na ci beneen aaya oustaz mooy ulaayika xisbullah mm-hmm. loolu dafa mel ne suratul mujaadala lay doon. ci cat la ca la suñ borom tàmbalee aaya ja laa tajidu xawman yuminuuna billah jeexale ko xisbullah ala inna xisballahi humul muflixuun yàlla ci alxuraan ñaari xisb ñaari xisb rek la fi jëfandikoo xisbu bële mu ne xisbu cheytaan bi mu ne xisbullah mën nga ne daanaka alxuraan amaatul xisb daanaka mën nga ko wax xisbu bële mooy man yartadda minkum an diinihi fa yamut. fa yamut fa sawfa ya'ti Llaahu bi qawmin. wallaay ba muy jeexal mu ne ñoo ñooy xisbullah. ñoo ñooy xisbullah. fii nag mu ne. Mm-hmm. Euh, istawasa alimu cheytaanu ala inna xisba cheytaan humul xaasiruun xaasiruun léegi nag ñooñu lay wax kon ñaari xisbu yooyu rek moo fi nekk xisbullaahi xisbu cheytaan moo tax bi muy tagg nag laa taj yu xawman ba muy jeexal mu ne radiyallaahu anhu wa radu anhu ulaayka xisbullah ala inna xisballaahi humul muflixuun parti bi yàlla ñooy gagné élection yi secrétaire général bi mooy yunital Muhammad sallallahu alayhi wa sallam deuxième deuxième deuxième homme ci parti bi mooy Aboubacar Sadiq troisième quatrième est-ce que sunu mag ñuy wut baax de poli baax baax de base de politique waaw cheikh islaam jóge na le Seydina Limaamu jógee na le waaw suñu Babacar si ngeen baaba Cheikh Alhaaj Malik jógee na le Cheikh Omar Fouti jógee na le mbooloo yëpp suñu marché yi Tuubaa jóge fële mbooloo yëpp wut si yonent bi ñu ne ko noo la indil ñii ndeysaan ndeysaan ndeysaan bu yow ma la yaamee ba arab puukaree waxam. waaw loolu naa wax Serigne Touba lu tax ab arab nga dem waaw lu jóg ngir Rasulullaay baatin ba sab xorom yowmal xiyaam dana neex nag bu mag ñooñu ñëwee munu fee weesu tët tët munu fee weesu ak ni ma leen nammee laa bëgg wax de man ni ma leen nammee ndeysaan ndeysaan jàkkaarloo suñu Babacar muuñ laak muuñam mu rafet boobu nga xam laa ilaaha <laughs> danañ leen gis. teg teg leen ko seen baaram. laa tahrimanna ilaahi yawma ru'yatihi. falaa yaxiibanna man yaljuka Allah. mbay. kon nag. <laughs> on daal. ayca lu jëma jeexul kon jógu fa. bu leen doxal seen léeg-léeg loo indi bu bëccëgee. Eh, bu de maa ngi ci foofu nga doon wax léeg. inal muluuka izaa daxaluu qarya. Balxiis ak eh, eh, Hudhud. walaay ndeysaan. incha allah bu guddee imaam bari nañ tënkee incha allah daanu ñëwaat ci alminbar bu soobee suñu borom. xamtu. xamtu day boo noppee ci tafsir bi rek oustaz ñu àndaat ak mbokk yi incha allah jàng julli. jërëjëf tey mooy suñu juróom fukkeelu daje ci suratul suratul Fatih aaya neuf Muhammadun Rasulullah. ba léegi. waaw tey la gaa tey la yi ñëw ci Badar ña ca ak. bind ñu war a am ci Badar. Oh. bu leen toxal seen déglu kon. bu jiw jeexul. jógu jógu fa. yal yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.